mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib mi ngi noonu it fa ngoog mbooloo ma ngoog duy dañ moom sëriñ bi daan ànd ak yéen par état dem fa aljuma doon ñu xadara waxtaane tarixa bi dimanche samedi ñu waxtaani yonent bi alayhi salaatu wasalaam dimanche ja nu waxtaanee daayira bi waxtaanee Seex Seydil Hadji Malick sëriñ bi bu jugee état bi dem ci état bee waaye xam ngeen ni jamono tëddee jamono bii ñu toll xam ngeen feebar bi am waaye looloo tax sëriñ bi bañ neenal itfa waaye du deñ di bégal njabootam moom sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib looloo waral asatise yi nekk ci itfa ak borom xam-xam yi ne ci réew nekk Amérique sëriñ bi dajale leen jox kontaan. inshallah taala njàngum alquran bigal leen Serigne mustapha si mo Serigne Maodo dana ñew jàngal leen alquranul karim ci xeet jid yo xamni kenn xamul nu mu mel bu ca noppé ñu jël Serigne Ahmed sar mo Serigne Moulay momi tam inshallah taala Ahmed Sar dana ñew ci njànginu alquran bu jéggi dayo Serigne bi ni inshallah taala dañu jël ay boromi xam-xam dañu ñew waxtaan ak yeen Serigne Moulay si muhammadul Habib. bégal leen moom itam loolu bu ko kenn kenn wuute ci yar ga moom sëriñ mu laay ci teey ga ci xam-xam bu sell ba bu jë noppee mbokk yi conseil général El Hadji Amadou Ndanka Ndaw yor sunu xarit boobu le docteur Cheikh Alhaji Mouhamadul Mansour Diop ca Tiwaawoon moom itam docteur Alhaji Ousmane Dia ca Gambia di borom xam-xam bu mag a mag a mag mais mbokk yi dañuy delluwaat New York fekk fa imam Abdoulaye Diop moom itam incha allahu taala dana ñëw waxtaan ak yéen imam Cheikh Tidiane Diallo moom itam dana ñëw bégal leen mbokk yi Seyda Fat Bintou Diop bu télévision Futur Média di soppe ñëpp dana ñëw moom itam bégal leen Seyda moom itam di borom xam mbokk yi soppe xaritu ñëpp di njabootu Seydil Hadji Malick sëriñ Pam moom itam dana ñëw ci xam-xam bu sell baak waxtaan mu am solo sëriñ xalifa mbay walxaaji mbay donde mbay borom xam-xam bu mag boobule dana ñëw waxtaan ak yéen mais mbokk yi xam nga lu xew ngeen bëgg sopp ko di xarit mboolem ku baax pap an moom itam incha allahu taala dana ñëw bégal leen ñëw waxtaan ak yéen ci ndigalu sëriñ bi waaye ren dañoo invité oustaz Modou Fall moom itam di borom xam-xam dana ñëw bégal leen ànd ceeg pap an mbokk duñ ca yam jànkat yaa ngoog woykat yaa ngoog ñii ànd ak ITFA ci Amérique mbay donde mbay ma Abdoul Aziz Ba ma nga ca New York Baarakan ma nga ca New York Alhaji Kabir Seen ma nga ca Chicago moom Mouhamadul Kabir Seen moom itam dana leen bégal Ibrahima Mbuub ma nga rali incha allahu taala dana ñëw bégal leen Abdoul Aziz Mbaye ma nga ca Allemagne dina leen bégal mbokk yi xaritu ñëpp soppay ñëpp ki nga xam ne ñëpp ko kan laay alxaaji Samdu buy dem xamal fi muy jëm day tagg yonent bi buy dem xamal ni ma ngay sagali kër alaaji Malick ak kan alxaaji Ngañ Mbaay mu alaaji Mansour Mbaay mu Ale Mbaay jël seen dund jox lépp sëriñ si Ahmed Mouhamadul Habib mi ngi noonu it fa ngoog ñaanal leen jigéen ñi ñoom itam daañu ñu wax cofeel gi nu am ci sëriñ bi waaye wax la njëkk muy xam it fa fu ñu ne woon xale yi itfa nañ ko daan def ci convention ba ñoom itam daañu ñëw xamal alquran di ñu leen jàngal tari ndax sëriñ bi xam leen jàngale ne na ko maamam Seydi El Hadji Mal daan defee sëriñ bi Ahmed Mouhamadul Habib Magaca kon jigéenu itfa ñoom itam dana ñëw am na ci ñoo xam ne ci leen la ñu newoon tey fan la ñu ne ak sëriñ bi xam nañu yàlla bëgg Seydina Mouhamed jeex tàkk ci leen tarixa bi waaye jeex tàkk ci Seydi El Hadji Malick njabootam sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib la 24 lay le 26 décembre bi ñu dëgmal loolu nak bu ko kenn kenn kenn wuute Serigne Sidi Ahmed Al Habib. jërë ngeen jëf ci taamu ak tand bi ngeen tan radio Itfa radio Itfa and ak yeen ci programme yes yu am solo mo xam ci walu diine la mo xam ci walu actualité la ak lepp luy soxal dundu doomu adama Radio ITFA Anda ak yéen lépp luy askanu Gambia wala mu soxal askanu senegal te nek ci bir dengan ak liko wër di ngeen ak ITFA ci programme yu am solo Radio ITFA di Radio askan wi leram ya jollina fo xol fo fa bawan radio ITFA dal dama ni jappal ma bi radio bul ko ti ba mukk radio ITFA Radio askan wi. Oh, شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب والقلب صلي على محمد السلام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 yëkkati nu yóbbu seetlu boobu di ko jaarale fan ko doon jaarale ci sunu sëriñ sëriñ Cheikh Ahmed si bu maam Cheikh Seydi Mouhamadou Habib Malick noonu lañuy nuyoo ak ziyaar sunu yaay soxla ma jigéen ak soxla yi nekk ci panel bi yëpp. ñu ngi dellu suwaat ci seen émission bu mag bi di ko def fii nag ci daaru Habibu New York. ànd ci ak sunu mbokk Cheikh ma tijaan sek ca Rhode Island incha allah dina ñëw léegi joxe li nga xam ne mooy programme bi waaye balaa boobu rek ñu fàttali ne programme bi nga xam ne bu mag boobu nu jàllal léegi incha allah dina ci dellu siwaat bu neexee yàlla muy li nga xam ne mooy jeexatal activité yi nga xam ne moom lañuy def ci at mi waaye bala noo sori lool rek dañuy bàyyi kàddu gi ak sëriñ Seydina Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga joxe li nga xam ne mooy programme Yitfa di la ziar bu baax a baax. waaleykum salaam wa rahmatullahi sëñ Alaaji Fali ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. di dellu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di nuyu mbooloo mi nga xam ne yépp ñoo ngi ñuy déglu di ñu seetaan fii si rajo Itfa Daarul Habibi ñu toogal leen fii ñun si Rhode Island studio Daarul Habibi. Euh, fas yéene comme ni nga ko waxee rek indil leen euh, li nga xam ne mooy programme ITFAY euh, comme ni nga ko defee rek ñu jaar daal di si jaaraat rek di bokk di nuyu sunu sëriñ sunu wasila sëñ Ahmed si di ko nuyu di ko ziare bu baax di nuyu soxna ma jigéen sekk si di nuyu di ziare mbooloom ñi nga xam ni ñoo ngi nekk ci biir ITFA ànd ak ñun. Eh, ci rajo bi ak di ñu ànd ñun saa saa su nekk donc comme ni ko laajee rek si alaaji Fally eh, it fa nag xam nga dafa am ay programme yi nga xam ne moom lay tëral ci semaine bi yëpp eh, te nekk semaine bu nekk nag muy ñëw di dellu si waat si loolu rek incha allahu rabi yi nga xam ne nag moo si jiitu ci semaine bi programme yi nga xam ne moom la ñuy présenté ci ndigalu sëriñ bi te moom tamit mu nekk nga xam ne moo koy jiite muy doon jàngale alxuraan bi Euh, jàngale bi nag di am euh, euh, si ñetti bis mi commencé sunday di dimanche di nekk une heure si bëccëg ba trois heures si bëccëg jàngale boobu nag ñu ngi nekk en wolof wolof la ko sëñ bi jàngale ñi nga xam ni ñooy gën a présent si jàng boobu si dimanche bi mooy ñi nga xam ni ñoo ngi commencé jàng alxuraan wala ñu dellu di nafaraat Euh, xam naan toujours bi ñuy wax ñu ngi comme ñuy commencé jàng si alxuraan moo te léegi bi nga ko commencé boo wax léegi mel ni euh, ñoom tamit ñoo ngi bëgg a commencé sore euh, bu ko defee rek ñu ñëw bees tamit ñu ñëw dugg si tamit si groupe boobu li ñuy dugg rek bu ko defee seriñ bi di def comme ni muy def rek di puus ñële di dab dabaatal ñi nga xam ne ñoo dooree dugg bu ko defee nag di jàng boobu mi ngi doon dimanche comme ni ma ko waxee rek une heure ba trois heures si bëccëg. bu ko defee beneen bis bi nga xam ni mooy am jàngal bi aussi muy doon talaata talaata si guddi nag lay doon huit heures si guddi euh, ba dix heures si guddi incha allahu rabbi euh, foofu nag mooy ñi nga xam ni euh, ñoom tamit jàgg nañu si daara ji macha allahu sëñ bi ànd ak ñoom tamit di di leen jàppale ñun ñëpp incha allahu ñu nekk si jàng boobu boobu nag comme ni ko waxee ñi nga xam ni yàgg nañ si te avancé nañu tuuti te léegi nag xam naa ni boo moytuwul nag Ah, am na yeneen étape nag yi nga xam ne ñoo ngi dugg si jàng bi. te mm-hmm. jàng bi nag nekkul rek euh, daal di liir daal di tëri am ay saw-saw yi nga xam ne nag moo nekk si jàng alxuraan ah, yi nga xam ne nag bi mi ngi koy jàngale kooku nag xam naa ni euh, du ma waxe détails yi fii détails yi damay bëgg. Mm-hmm. nit ñi dañu ko kumpa ñëw nag présent si jàng bi pour mën a xam dëgg-dëgg li ñuy jàng parce que dafay mel ni rek bu ñuy répété toujours rek sëriñ baa ngi jàngale alxames. sëriñ baa ngi am sëriñ baa ngi jàngale talaata sëriñ baa ngi jàngale dimanche sëriñ baa ngi jàngale samedi hmm. dafay léeg-léeg bu ñu deful nanka dafay mel ne lu monotone hmm. alors nag dafa am yeneen yu nekk ci biir jàngale bi jàngale bi dafa yaatu comme ñëpp ni nga xamee mais nag nit ñi dañu war a ñëw nag di présent di am ci taxawaay bu baax bu ko defee rek bu ko defee daañu ñëpp daañu gis njëriñ bi incha allahu rabbi hmm. yeneen bis bi si topp nag mooy samedi bi samedi bi moom suñu doom yi dañ koy jàngal sëñ bi mi ngi koy jàngale en anglais suñu doom yi ak ñi nga xam ne ñoo ci réew mi fii te anglais bi gën a yomb si ñoom xefe sëñ mm. daal di ñëw foofu fekk leen fa si seen mm. terrain euh, jàngal leen li nga xam ni moo di bi ci yoon bi nga xam ni moom lañ koy gën a mën a euh, dégge mm. euh, bu ko defee nag ñetti fan yooyu daal mooy fan yi nga xam ne incha allahu rabbi sëñ bi dana def jàngale yooyu jàngale classe yooyu nag macha allahu ñi nga xam ne bëgg nañ si dugg dana am ñi nga xam ne ñoom lañ mën a jokkool pour ñu jàppale leen ba nga xam ni Euh, buñ si bëggee dugg rek dana yomb si ñoom te daañu am tools yëpp yi nga xam ni euh, moom la ñu moom la ñuy war a am pour mën a euh, jàng bi mën a am njëriñ si ñoom ku bugg jokk bëgg jokk ak ñoom nag mën na wax ak ku ñuy wax soxna Ndeye Amy Sarr mu woo ko si téléphone am ne 401 261 27 01 401 261 2701 wala soxna maam Adama Gueye téléphone am nekk 401 688 5617 wala mu jokkoog sëñ Cheikh Tidiane Diallo euh, téléphone am nekk 267 688 89 80 wala Serigne Djibril Thiaw téléphone am nekk 614 301 40 82 wala aussi mu jokkoog soxna euh, Roqe Cissé soxna Roqe Cissé moom ma nga France ñi nga xam ne ñoo ngi côté boobu.

si ñu ma lim leen joxe seen téléphone ku mel ni Adja Ndorine Gueye euh, wala soxna Jeewo Ba wala suñ Pam jaay Gueye wala man tim boo mu woowee ñun ñëpp daal daañu leen mën a teg yoon yi nga xam ne daal bu soobee yàlla euh, daañu mën a dugg si jàng bi incha allahu rabbi euh, donc loolu mooy programme mu jàngale bi léegi nag mu amoon yeneen ñaari programme yi nga xam ne ñoo ngi ñëw si semaine bi beneen bis bi nga xam ne mooy ñëw alxames moom moom la ñuy wax ëttu itfa ëttu itfa bi nag dafa nekk alxames lay commencé neuf heures euh, huit neuf heures si guddi ba onze heures mu nekk euh, plateau bu am solo bi nga xam ni dañ fay waxtaane mbir yi nga xam ni wax dëgg yàlla euh, danañu amal njariñ ñun ñi nga xam ni ñoo fi nekk ak sunu njaboot yëpp programme yi ci waxtaan nag bokk na ci mbirum santé daañ ci wax mbirum éducation daañ ci wax mbirum économique daañ ci wax mbiru taxe daañ ci wax mbiru real estate ñi nga xam bëgg nañ jënd kër wala bëgg jaay kër daañu si wax aussi euh, yi nga xam ni sunu doom yi euh, ci réew mi ñu nekk dañ koy soxal programme yooyu sax am na yu ci passé muy xale yi nga xam ni li ñu bëgg dugg ci armée bi euh, pour ñu ñuy woo ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir ñi ñuy wax woo ñëpp fii ñu si waxtaan nag ay professionnel li ñuy doon wala boog ñu am expérience ci mbir yi bu ko defee yooyu yëpp dafay doon yi nga xam ni dafay den ay ay ay connexion yi nga xam ni nit ñi daañ ko mën a am ay information yi nga xam ne ñun ko mën a am ay networking yi nga xam ne ñun ñu si biir dañ ko mën a am pour suñu bopp pour suñu njaboot bu ko defee yooyu yëpp ay information ak jàngale yi nga xam ne dafay yokk si jàngale yi nga xam ne moom lañ jàng su mbirum diine bi mu ñuy teete ci yeneen côté yi bu ko defee yooyu yëpp ay tools la ay mécanismes yi nga xam ne sur la clairvoyance de sëñ Sidi Ahmed bu ko defee yooyu yëpp nag ak équipe bi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñu ñuy ñëw di indi programme yooyu nag pour ñu koy ñu koy def mu fay na ñu si invité ñu ñëpp ñuy euh, am ci taxaw ñu gën yokk taxawaay te ñëw di fekkee programme yooyu bi nga xam nag moo ci mujj si programme yi mooy programme tey bi ñëw xadaratul juma mi nga xam moom ajjuma lay am ajuma bi nag comme niñ ko gisee rek dañuy indi ay borom xam-xam ñi nga xam ni ñoo ngi fii wala ñoo ngi Sénégal wala ñoo ngi Gambie euh, wala ñoo ngi Europe fu ñu mën nekk rek si àddina bi ñu ñëw na dañu waxtaanal si mbiru diine bi ñu si am ay thèmes yu am solo nag ñi nga xam ni dañ ko ci tànn di leen ko lo wala ñu indi ñu koy waxtaane bu ko defee nag ñëw si tarixa bi ci diine bi ci yaatal ak yépp nag bu ko defee ñi ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir tamit am ay question yi nga xam ne moom la ñuy laajte ñoom tamit di ci indi ay leral bu ko defee ñëpp ku si nekk rek am boy dem da nga yóbbaale am njëriñ sëñ Fallou daal dafa mel ne loolu mooy programme yi nga xam ne mooy am si semaine bu semaine bu nekk fii ci rajo ITFA darul Habibi bi nga xam na xam naa moo ci mujj nag mooy bi ñu bi programme bi mooy programme convention bi nga xam ni moom mooy am ren ren nag ñu koy def virtuellement euh, euh, publicité bi dégg nañ ko xanaa ñu dellu si waat pour fàttali daje mi ngi doon le vingt le vingt quatre le vingt le vingt six décembre bii ñu nekk bu ko defee nag ñu si invité ñëpp incha allahu rabbi détails yi yëpp gis gën na leer si publicité bi xanaa dañ si jaaraatal noonu rek pour fàttali que mi comme que bokk na nga xam ni euh, dañ ko war a wax donc sëñ Fall yi daal kon nag mi ngi noonu ñu delloo la kàddu gi rek xam ni programme bi daal mi ngi noonu bu ko defee rek nit ñi nag euh, gën ci am ay taxawaay euh, bu ko defee ñëpp ñu amoon njëriñ incha allahu rabbi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Tidiane jërëjëf ci faram fàcce bi rafet na euh, xanaa rek ñu jéem a dalal sunu gan gi tey ki nga xam ne moo ni waxtaanal mooy koo xam ne soppe la xarit la nit ku baax wax dëgg yàlla nit ku am njariñ ndax biñ ko contacté pour mu defal ni émission bi ak léegi ci quarante minutes la tool quarante minutes te tey moo jiite juma kër Serigne Touba nga xam ne ajuma dafa xat ci moom mais biñ ko waxee ne ko ITFA ak ci njiitu Serigne Ahmed ñoo la soxla dane bàyyi naa lépp xaar mu ci préparé muy kan muy imam Moustapha Diop imam ñu ngi lay nuyu di la ziar di kenn koo xam ne ni tabaarkàlla ci borom xam-xam yi nekk dëkk bi la nekk am njariñ lool nag tabaarkàlla di jàngale tey di nit ku baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ku baax mooy nit ñi nga xam ne ñooy jàngale alxuraan di ko jëfee ndax wax dëgg yàlla jugal rek nga jóg def émission loolu baax rek moo tax kon imam Moustapha ñu ngi wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di fas yéene ànd ak yow ci thème boo xam ne nii am na solo lool ndax li mu nar a waxtaanee tey mooy nit ki digganteem ak yàlla balaa dee ñëw nit ki diggante ak moroomam balaa dee ñëw imam Moustapha salaamaaleykum wa rahmatullah tafadal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 di jiital ci nuyo bi sëñ ni nga ko waxee rek Sidi Ahmed si sunu wëllëre sunu sëriñ sunu xarit suñu lépp di ko ñaanal liggéey bii nga xam ne moom la nekk yal na ko yàlla dëgëral te mm-hmm. yokk ko te nun ñëpp ñu jariñu ci ah, mbokk mi génn léegi li mu leeral am na solo lool yal na ko yàlla barkeel te àggale ko te yàlla jox ñu kàttan yu ñu ko jàppale di siyaare mboolem xadra bi nag di siyaare mboolem xadra bi tàmbale ko ci imaam Abdullahi Diop ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte lool alaaji Faali di la nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom nga bokkal uh, jataay bi eh, di am mbégte ci lu baax li ngeen li nga xam ne uh, sedd nganu ci woonu ci ngir ñu mën cee laayante biir ak bokki jullit yi kon ñu ngi sant bu baax sëñ Faali jërëjëf imam xam naa ne kon comme dana xaw a tardé nu bàyyi la rek xam naa waa régie sax dina nu may quelques minutes après nu bàyyi la nga dugg waxtaan alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لا اله الا هو فلا خالق خيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير mbokki jullit yi gannaaw bu ñu leen nuyoo di leen ziyaar di sant yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo di rabbul alamin di borom bindeef yi moom mi nga xam ne lam yettaxis waladan walam yakun lahu sharikun fil mulk kenn képp la moom yàlla amul kenn ku bokkaaleeg moom ci nguuram gi wala man-manam gi wala kattanam gi di seere ne yàlla rek mooy yàlla ndax amul kenn ku bind ku may moom amul kenn ku yeyoo ñu jaamu ko ku may moom moom mi wax ne na ngeen ma jaamu man yàlla dalika bi anna allaha huwa alxaq wa anna ma yad'uuna min dunihi huwa albatil lu bokut ak yàlla nen la kon mom rek lañu wara jaamu moy ku ko wek mom yàlla di serene muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy ndawam limu mu yónni tey ku sellam ki tay ki nga xamne ne amanata wa amaanata wa balaga ar risalata wa nasaha al umma liko yàlla yónni won mot nako na matal nako ci xet bi lépp lu don tidlo nit jële nako fi jihaad na ci yoonu yàlla ba yàlla gërëm ko yal na yàlla def salaatu salaam ci moom ak i saxaabaam loolu mbokki jullit yi fu ngeen mën a nekk di ñu déglu amul benn werante ci ne jamono bii nu toll soxla nanu lool nuy fàttali konte ci lu jëm ci mbirum alaxira fàttali ci lu jëm ci mbirum dee ndax danoo nekk ci jamono joo xam ne toxat fiihil maddiyaat matière yi bari na domine na lépp yi yëngu ci jamono yëngal na ko ba nit ñi mel ne lu fàtte dee dee gi bari na ba ñu baree bari rëyatut ci ñoom kon amul benn werante ci ne waxtu wu nekk fàttaliku ko jot na ndax ñu xam ne kat dee moom mooy xaqiqatul kubra gi nga xam ne kenn nattablewu ko moo jaaxal ñëpp moo te borom doole yi moo te buur yi moo te ñëpp loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal ñunu ak siro min dikri haadimi lazaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dee leen bari lu ngeen di fàttaliku dee saxaaba yi daw ne ko wama haadimul ladati ya rasulallah qaala al mawt mu ne leen dee li nga xam day màbb bànneex yi adduna lu bànneex bi bari bari xéewal yeeg man-man geeg kàttan gi dee mooy ñëw màbb lépp mooy moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne dee leen fàttaliku dee kon ci loolu la bëgg a ak yéen muy lu jëm ci loo xam ne moo di al istidaadu li yawmi rahim jéem a waajal bis boobu nga xam ne kenn ku nekk dana ñëw ci yow te amul benn werante ci ne tukki boobu mi ngi tàmbale ci dee di jeexe ci imma bil janna aw naar fa tukki bay mate nag ba nga àgg fa nga jëm benn muy janna wala muy sawara yal na nu yàlla def nu bokk ci ñi nga xam ne ñoo di waa aljanna bokki jullit di ñu xam ne li feeg doomu aadamaa ngi nekk ci àdduna di mébét ay mébét di bëgg ay bëgg di wut ay bànneex waaye bu dee ñëwee moom dagg bànneex yooyu yëpp ak mébét yooyu yëpp sànni fële kon képp koo xam ne gëm nga ne dee ngi ñëw dana jaadu nga fàttaliku li nga xam ne moo di dee te jéem a jóg nag taxaw ci yeneeni tànk yoo xam ne moom ngay jëfe-jëf ju baax jëm ci yàlla subhaanahu wa taala ndax jëmmi dee rek dafa metti jëmmi la cay tegu it metti waaye nag loolu moo waral jullit bu nekk war di farlu waxtu ne ci delo sa bop ci yàlla tubal yàlla subhanahu wa taala lolu motax yàlla wax ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an yatiyakum al azabu summa laa tunsaruun yéen jullit ñi gaaw leen delu ci seen borom te ngeen jébbal seen borom seen bop bala bisa ñëw bo xamne da ngeen soxla ndimbal te kenn du leen dimbale wa atbiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakumul azabu baxtatan wa antum la tashurun na ngeen seet jëf yu rafet yi ngeen jëf ca warukaay topp ko te topp li yàlla wàcce ci yéen wàcce ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam balaa bisu mbugal a ñëw bett leen te ngeen defe ne dund gaa ngi fi ba faaw doomu aadama kum xelam waxtu wu ne mi ngi programmé ak defe ne jógee gu fi waaye nag dund gi moom day dem moo tax yàlla ne balaa bisa ñëw an taqula nafsun ya xasrata ala ma faradtu fi janbillah nit day dem bam yag rek ñu ne ko yow kat taxawal sa sonorisation jogna mu rëccu lool lu mu fi doon def ak lu ko teewoon nek ci lu bax jàpp ne tay mom ñak ñëw na tey moom pertement ñëw na yàlla jox nañu yonne nañu ay message yu bari ngir ñu ko bis bu mag boobule moo tax mu ne wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yaatiya ahadakum al maut fa rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min alsaalihin nee de leen def lu baax xëy me gont bi amna solo lol waye de leen ci def ci yoonu yalla bu leen fatte julli yu juróom bu leen fatte asaka yi bu leen juma yi bu leen fatte def lu baax ci nit ñi bala bisa ñew bo xamne da danga naan lawla akhartani ila ajalin qaribin aka neexon yalla bàyyi ma fii ndax lima yobulo doyit ba ma mën def leneen lo xamne mo ëpp def te su boba nak walan yuaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirun bima taamaluun yàlla nee na ku àgg ci sa minute bu mujj jeex na amatoo jëf ju baax joo fiy defaat ci diggante bi wuy ji borom ba subhaanahu wa taala rek moo fi des kon loolu mbokk yi jar naa bàyyi xel moo tax yàlla waxaat beneen ci beneen aaya ne wa xiila baynahum wa bayna maa yashtahuun li nga doon bëgg ak li nga doon xemmem ci addunaak yépp yàlla dox sa digganteeg loola dara doxatu fi lu may dee rek moo tax wax nañu ne amul kenn koo xam ne dee nga te rëccu woo ku faatu rek da nga rëccu ñu ne waaw lu tax kooku di rëccu ñu ne in kaana muxsinan nadima an laa yakuna isdaada wa in kaana musian nadima an laa yakuna istataba bu fekkee ne day doon def lu baax dana rëccu lu teewoon mu yokk loxoom ci lam doon def bu fekkee daf doon def safaan ba dana rëccu lu teewoon lu taxoon muy def safaan boobale kon ku dee rek da nga rëccu mbokk yi ab tukkee xam ne kenn ku nekk da nga lem sa say baga soobu ci gaalub tukki googu lee te moo di muy dëgg kenn du werante yàlla subhaanahu wa taala nee na wa jaat sakratul mawti bil xaqi dalika ma kunta minhu taxiit bisa ngi ni boo xam ne sakratul mawti muy manditam dee muy sukratus dee bis la boo xamante ne bii du jaas mukk fàww dana ñëw wa nufixa fi suuri dalika yawmul waid bis boobee lañuy bu ñu wolee bufte bi loolu mooy yawmul waid bi nga xam ne moom la ñu doon dig nit ñëpp lépp luy dund da nga faatu wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid kenn ku nekk war ngaa fàttaliku bis boobu nga xam ne di ko bàyyi xel bu ñëwee kat wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid kenn ku nekk day am ku la wommat am ku topp ci yow kenn day takkuk buum ci tànkub ginnaaw ba buñ ko doon wax ni ñuy jiitalew nag takkuk buum ci baat ba ni ñuy jiitalew nag ne la kaay wuy ji ca borom ba laxad كنت في غفلة min haja yow day ku sàgganoon nga ci àdduna fa kashafna anka xitaa'aka fa basaruka al yawma hadid ñu wan la ngay jàkkaaroog àllaaxira ak ndogalug yàlla gaag la fay xew lépp nga xam ne lépp lu la umpoon tey leer la naññ loolu mooy bis bi nga xam ne moo di bisub dee mbokki jullit yi nit ki bu faatoo benn mu dajeeg malaikatu rahma wala mu dajeeg malaikatul azab wa jaat sakratul mawti bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid bàmmeel itam ñaari bàmmeel rek la ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon imma rawdatun min riyadil janna aw xufratun min xafari naar yonent bi nee na bàmmeel moom ñaari bàmmeel rek la benn muy ab dër ci aljanna bu fekkee boroom nekkoon na ci lu neex yàlla wala muy am pax sawara bu fekkee boroom nekkoon na ci lu neexul yàlla dhalika ma kunta minhu tahid kon mbokkum julit yow mi àdduna yóbbaale yow mi nga xamne aduna war na la yow mi nga xamne ne nga sa borom yow mi nga xamne top nga sa katan ak sa man-man ak sa alal ci aduna mbokum julit yow mi nga xamne ya top yoy yep na nga xamne aduna lu mu reey reey ak lu fan bi gudd gudd ak lu dund gi gudd gudd mom dafa melni ne guddi goo xam ne dana set lolou kon motax julit jullit war ko bayyi xel bu baax motax yalla subhanahu wa taala di wax ne يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يودوم آدم إنك كادح إلى ربك كدحا كوي دلو تسبرهم سبحانه وتعالى فملاقيه تدنغ دجيك يالله سبحانه وتعالى مكم جل الخلاط السجم ودجيك سبرهم سبحانه وتعالى يبو فلن لمي سيجف يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه laa budda an talqa allah faaw nga dajeeg yàlla subhaanahu wa taala teyit ñu xam ne bis penc lu jege la dund gi gàtt na ba tax na kenn ku nekk war na ko bàyyi xel te bu dee ñëwee lépp jeex moo tax alquran di wax ne falawla ida balaqat alxulquumu wa antum xiina idin tanzuruun koo xam ne manoon nga ba dem ba tey ñu ne la yaa ngi ci sa minute bu mujj bal sag ruu sax ñëw na ba ci sa wanaasu nga xam ne mënatoo koo jàllale wa antum xiina idin tanzuruun ñëpp ngi xol jëm ji kenn mënu ci mom dara wuy ji boromam rek mo fi seus ab docteur mënu ci dara amul hôpital bu ko mëna faj waye yàlla neena wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun yalla la gëna a jege ak malaayikam dé mi jël ci sagru waye mënu ko gis falawla in kuntum ghayra madinina tarjiunaha bu ngeen jëlon li ngeen am ak li ngeen xam ak li ngeen man lépp ngir delo ci bakan bi du ngeen ko man ba mukk in kuntum sadiqina kon kooku day dee rek dem wuy ji borom bi subhaanahu wa taala moo ci des yàlla ne fa amma in kaana min al muqarrabina bu fekkee dafa bokkoon ci gaañu baax ñi nga xam ne dañu doon def lu baax fii ci àdduna di jaamu yàlla di dimbale nit ñi di taxawu jàkka yi di taxaw miskin yi kon fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naim ajjana ju neex xewal gu neex mooy ñeel jullit boobule waaye wa imma in kaana wa amma in kaana min ashaabi yamin fa salaamun laka min ashaabil yamin kon alaxira ñetti catégorie yi rek ñoo fa nekk moo di al muqarrabuun ashaabul yamin ak al mukazibuun addallin ñooñu ñooy catégorie yi nga xam ne kenn ku nekk fa nga jëm al muqarrabuuna ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla di terale ci àjjana yi gën a kawe ñoom la ñuy njëkk seet seeni jëf ashaabul yamin fa salaamun laka min ashaabil yamin ñooña doonte dañ leen di calcul seeni jëfit àjjana lañ jëm waaye wa amma in kaana min al mukaddibiina dallin bu fekkee dañoo bokkoon ci ñi weddi yàlla bokkoon ci ñi doyadal diine duñu julli duñu woor ñu def lu baax ci nit ñi fa nuzulun min hamimin wa tasliyatu jahimin yal nañ ci yàlla musal nee na ñooñu seen wàccuwaay mooy sawara mooy sawaraw tàng woowale wa tasliyatu jahimin ganale gañ leen di ganale foofa moo di xamim xamim nag mooy wu ndox mu tàng moo xam ne ku ko naan mu xotti say butit loola lañ leen di ganalee ñoom ñoo ñi nga xam ne ñooy almukadibuuna daalin yàlla ne inna haada la huwa xaqul yaqin dëgg ngi nii gu kenn wërta werante dëgg gu wér a ku koy weddi daa ak séegut kon fa sabbix bismi rabbika al azim dee leen màggal yàlla tey jaamu seen borom subhaanahu wa taala yàlla nee na kalla ida balaqati taraqiya jant bu ñu demee ba ruugi tolloog baat bi mënatut a génn xanaa ruugi day génn rek waqiila man raqin sey mbokk ak ñi la wër naan ana ku mën a lugg ana ku mën a mocc ana ban docteur moo fi sut nañ ko yóbbu principal ak la danteg nañ ko yóbbu ci hôpital yu mag ya na wa zanna annahu alfiraq yéenay wax li ngeen di wax waaye ki nar a dem moom xam na ne tey jii day tàggoog adduna tey jii day génn adduna wa na annahu alfiraq wal tafati saaqu bi saaq ñu yëkkati ne taxawal yóbbul ci oto ba ñu yóbbu hôpital tànk ya jaxasoo loolu mooy wal tafati saaqu bi saaq boo yëkkatee du taxaw boo dijee du diju boo joxeeg lekk mu dellu si boo joxeeg nan mu delu ci wal tafati saq bi saq lan mo ci tege ila rabbika yawma izinil masaq sa borom rek waye hôpital akub docteur monu ci len mbok jullit yi ñu bàyyi xel bu baax li nga xamne modi bamel bu ñewé bamel ne na ay na tayyib ana sa xet gu neex gi nga amé won ci aduna ak parfum ya nga daan laaj tey laal tay de xéñu dara ayna lisanuka al fasih ana sa mi nga xamne lula neex wax da léeg-léeg nga waxi njaaxum léeg-léeg nga wax lu baax waaye léeg-léeg nga wax lu yàq ana sa làmmiñ rëy woowee tey mënoo ñeppi baat ay xarakatu ak xarakatuka daa'iba ana sa yëngutu yi nga daan def ci àdduna tey mënoo yëngal baaraam maa ajasaka fi haadihi laxasaat ana lan moo la lottloo ba mënoo wax mënoo yëkkati tànk mënoo yëkkati loxo man alladi axrasaka wa askatak lan moo la noppiloo ba mënoo wax mënoo ñeppi sa gémmiñ innahu l mawt dee moo la noppiloo kon mbokki julit yi dee non noonu mbokk ñu xamne aduna ñetti fan rek la dembu wéy na te dootu delu si ba mukk kon tay mo mo fi tew da nga te mang bis bi ci jëf yu rafet yi nga xamne mo ci nek ëllëg nga ngi ñëw te xamoo lu muy andi mba dana la fi fekk kon sa bisub tay moy sa bis mbokkum julit aduna wal na la ginaaw te dootu delu si ba mukk deggmal nga àllaaxira te dooto delu si ba mukk aduna wan na la ginaaw te du wëlbatiku deggmal nga àllaaxira te dooto delu si mbokk yi kon loolu moo di dee kenn ku nekk nag muy adduna am nay doom àllaaxira am nay doom kon na nga fexe bokk ci doomi àllaaxira yooyu nga xam ne bu ëllëgee ñu taxe ñu xam ne tey al yawmu amalun wala xisaab tey bisub lëggee la du bisub fayantoo waaye xëdan xisaabun wala amal ëllëg bisub fayantoo la waaye du bisub lëggéey bu bis fin ci xasee jot amul lu looy def ci sa téere bi yiw fii nga ko mën a defee ci adduna bu ëllëgee yàlla fay la imaamu ali radiallahu anhu dafa ñëw ci ay armeel di leen ziyaare ne salaamun alaykum daara qawmin aminin antumu saabiquuna wa nahnu insha allahu bikum laaxiquun yéen ñu tëdd ci armeel yi maa ngi leen di nuyu yal na yàlla defal leen jàmm yéen day yéen a nu jiitu waaye noo ngi topp ci yéen di ñëw yal na yàlla jéggal leen ba mu noppee ca nuyoo ba mu ne leen yaa ahla diyaari almuxisha wal isaami naxira annaa sa nuxbirukum bima jara baadakum mu ne yéen yax yu furux yi tëdd fii xaaral ma wax leen li nga xam ne moo nekk fee ngeen jóge woon ñëw fii na ngeen xam ne seen kër yi am na ñeneen ñu ko dëkke bu yàgg na ngeen xam ne seen alal ya ñeneen doon nañ ko di ca def lu leen neex na ngeen xam ne seen soxna ya am nañ yeneeni boroomi kër ba sëyi ca bu yàgg na ngeen xam ne lépp loo xam ne bàyyi woon gëwoon ko fa tege na ci yoneen loxo léegi nag loolu mooy la la ci àdduna yéen lan moo nekk fii yéen mu mel ne dafa am lu ko dee ne ko suñu mënoon a tontu day lañ lay tontu moo di wa fa inna xayra zaadi taqwa ne gaay yi nekk foofu dee leen wut yóbbal bu baax ndax yóbbal bi gën ci yóbbal yi mooy yóbbalub ragal yàlla kon yéen ñi ñëwagut na ngeen wut yobbalu ragal yàlla ibn abbas radiyallahu anhu neena man balagha al 40 wa lam yaghlib khayruhu sharr falyatajahhaz ila an-nar ibn abbas neena ko xamne am nga ñeen fukki at te ja wóoru la ne sa jëf ju baax mo upp sa jëf ju yiw bayo bo wajal sa bop ci sawara kon mbokk julit yi lolu bay janna bay xel bu baax ibnu omar radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jàpp ci sama mbagg danoo ànd di dox mu téye ci sama mbagg ne ma yabna omar ma ne ko amu ne ma kun fi dunya ka ka annaka garib aw aabiru sabil ne mu ne ma àdduna si mel na ci ab doxandiim boo xam ne da ngay wut foo yendu rek bu ngoonee nga gont wala ngay wut foo fanaan bu subaa nga xëy na nga mel ne ku nekk ci tukki boobu dëkkoo fenn kor ker goo yendu bu ngoonee nga dem na nga jàppee noonu àdduna moo tax mu ne ko ida am sayta fala tantasiri sabaax boo gontee bul xaar bët set loo war a def ci guddi gi nanga ko def wa ida asbaxta fala tantasiri l masa boo xëyee suba teel loo war a def ci bëccëg bi nanga ko def bul xaar ngoon te it waxus min sixaatika li maradika wa min xayaatika li mawtika bu la yàlla mayeeg wér nga mën a liggéeyal yàlla man di julli rakka man di jàng alquran man di def yu baree bari ci diine man di wuy ji wootu yàlla man di dox dem ci jàkka ji di julli ji nang ko def bala tawata ñëw bu la yàlla deseelee ak dundu ci sax dundu na nga ca def lu baax bala de ñëw ndax bu de ñewé lépp jot yàlla neena alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum mo ndax nak jotut ngeen fóot seen xol yi delu ci yàlla subhanahu wa taala li dikrillah wa ma nazala min alxaq wala yakunu kalladina utul kitaaba min qabl fa taala alayhim al amadu fa qassat qulubuhum bu leen mel nga xam ñeneen jiitu woon nit ñu baax lañ di jaamu yàlla te sax ca di jàngale diine te di ko leeral ngeen dem ba mu yàgg ñàkk maas googee tax seen xol yi wow jamono yàq leen ci liy xew ci média yeeg rajo yeeg télé yi ba tax kenn amatul xolub yërmande kenn amatul yërmande dimbalante kenn amatul yërmande def lu baax loolu bu mu leen dal mbokk di julli di ñu xam ne kam min mus kam yow man lam yastakmilhu bari yaa na ku xëy ne damay defi nangam te mootuli woo bis boobale dee ñëw na bariyaana waxambaane wu ñuy séentu ca moom ak màgg aku tekki waaye de teg dee fekk na ko fa loo tax woykat ba ne dhahaba shababu fama lahu min awdatin koo xam ne sag waxambaane dem na dootu dellu ba mukk wa atal mashibu fa ayna minhu lmaarabu yow mi jëm ci ak mat yow mi jëm ci ak mag bi jaawub dee ngi lay nuyu te yëgagoo ko fan ngay mucce kon dellul ci yàlla subhaanahu wa taala daa anka ma qad faata fi zamani siba li la faatoon ci sag ndaw bàyyi ko te xam ne dootu delsi wadkur sunubaka wabkiha ya muslimu xoolal say bakkaar li nga def ba nga juddoo ba léegi li nga fi def ci sag ndaw bis yi nga weesu li nga ci def mu ndax yaa ngi def lu lu yàlla gërëm wala déet wallaylu faalam wannahaaru kilahuma anfaasuna bihima tuaddu wa tuxsabu nu xam ne nekk gi nu nekk fii ci bitim rew ak ñene ca bitim réew maa ngene feneen noyyi yi ngay noyyi minute yi ngay noyyi ak seconde yi ngay noyyi mooy sa adduna bu gu ci jàll jàll na te defoo ca lu baax waxtu wi nga am mooy mooy lenn ci sa dund boo ci deful lu baax perte nga ko bis bi nga am bu jàllee ci yëfi àdduna ak yeneen boo ci deful lu baax perte nga ko kon nooy yi ngay nooy yi yu nekk mooy sa àdduna doo xaar ba at ma la ñëw wala nga ne naa xaar ba jóge fii wala naa bàyyi ba def nangam na ngeen xam ne guddi gu nekk dana bët dana set lam yansahul malakaani xiina nasitahu minute boo jàll malaayika yi fàttewuñ ko te yow yaa ngi koy fàtte والروح فيك وديعة أودعتها سغرو مومو كو دنج لكو دنك رك سغرو مومو دنج لكو دنك ستردها بالرغم عنك وتسلب léegi nga delloo ko kala ko dénkoon moom yàlla subhaanahu wa taala tayit bu la àdduna waree na nga xam ne àdduna war na la faaw lu mu neex neex ak lu mu mën di mel day mujj dem bàyyi la fi lépp loo amoon da ko fi dénkaane te dem lépp loo doon def da ko fa bàyyi te dem faamal bi rabbika innahu adna liman yadcuuhu min xablil waridi wa aqrabu defal te ñaan sa borom subhaanahu wa taala ndax moo la gën a jege képp ku lay jege ci sa buumi xol mbokki jullit ñu xam ne càggante bokk na ci li gën a mën ab nit li gën a mën nit ki ci àdduna ba du def la nga xam du ko def du def la nga xam ne la war def bokk na ci li nga xam ne waykat ba wax na ko waya nee na laysa al garibu gariba wal yamani inna al gariba al lahdi wal kafani nee na wéet ci àdduna moo xam dëkk bu sori nga nekk loola du wéetaay wéetaay mooy wéet ci sa bàmmeel ak sa càngaay yow nekk yow dong te kenn fekku la fa inna lahu xaqun li gurbatihi ala almuqimina fi l awtaani wa sakani wéet daal mooy wéet yow dong waaye du wéet ci sori sam réew wala sori saw nit rek mu safari baidun wa saadi lan sama tukki sori na jàppal na yow it sama tukki sori na yóbbal bu la fa nga jëm ndax am nga ko yow jullit bi wa quwwati daafan wal mawtu yatlubu ni sa kàttan na ngi jeex yaa ngi gën di néew doole say at bari na te dee ngi topp ci yow di la sàkku mu ndax da nga mën a mucc ci lii wali baqaaya zunubin lastu alamuha yaa ngi desiti bàkkaar yoo xam ne tuuba goo ko te xamagoo it kañ nga fiy jóge allahu yaalamuha fi sirri wal alani yàlla rek moo xam say bàkkaar la nga ca am kon tuubal te wëlbatiku dellu ca borom bi subhaanahu wa taala ما أحلم الله حيث عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني yàlla moom dafa lewet dafa lay bàyyi sa bopp rek nga ne ci li la neex cay boo àndutukum sa sam xel ba dellu tuub say bàkkaar yàlla mi la suturaal nga xam ne la ngay def ak la ngay wax lépp. waaw kooku dafa woote la yàlla mi nga xam ne moom rek moo xam say bàkkaar ba noppi suturaal la nga def la nga mën a def foo wéet yow dong yàlla bàyyi la ci boo ko waxul kenn du ko xam ngir lewatu yàllaa tax waaye kon bu la ci toppoon jële la fi tamurru saaati ayyaami bila nadamin say bisa ngi dem te rëccu say waxtoo ngi dem te rëccu woo wala bukaa in wala xawfin wala xasani jooyoo say bàkkaar amoo tiitaange ci fa nga jëm ëllëg tiitoo ci say mbiri àdduna kon mbokkum jullit tiital ci say mbiri àdduna anna alladi axliqu al abwaaba mujtahidan yàlla ubbi na bunti tuub yow yaa ko tëj يالا اوبيل نلا بونتي توب ليغا ديف سي بكار بوكو توبي يالا جيغال لاكو على المعاصي وعين الله تنصرني باتو يالا نغي لاي خول يو مبوكم يا زله كتبت في غفله ذهبت يا حسره بقيت في القلب تحرقني بيرتما اكي ريتش ريتش يو باري نيت كي ديف تياغانتي مولا يوبي باري بكار توبو سي يالا سبحانه وتعالى كون جويل سا بوب جويل سا بكان ba melne ko xamne alal firaasi wa aydihim tuqallibu nii melalal sa bopp ci koo xam ne yaa nga ñu tëral ca fa ñuy ngir jëbbal ko borom subhaanahu wa taala waxad ataw bi tabibin kay yuaalija nii walam ara tibba hatha al yowma yanfaau nii nit ki bu àggee ci war a génn àdduna ñu andib docteur waaye yow gis nga ne tey benn docteur rek nga am muy yàlla subhaanahu wa taala te moo la fiy jëlee wastadda naz'i wa zaaral mawtu yajsubu nii malaykam dee ñëw jàpp ci sa ruu gi di ko ñoddi mu mel ne sa yaram wépp la ñuy génnandoo min kulli irqin bila rifqin wala hawani ci say yax ci say sidiid lépp àndandoo di metti mel ne dañ koy xëccandoo benn yoon noonu la ruu gi di génn ci doomu aadama wastadda nas'i wa saaral mawtu yajsubuni dee ñëw ci sa kaw ñuy xëcc sa ruu min kulli irqin bila rifqin wala hawani wastaxraja ruuxu min nii fii taxarquriha bu ñëwee ba agsi sa boli nag foofu lañ koy xëcce benn yoon wasaara riqii mariran xiina xarxarani day mujj sax boo wanaasoo sa sa say lor dootu safi lor leneen lay saf mooy cafkal dee lay saf wa xammadoo nii waraaxal kullu wan sarafo ñu ne arooga génn na kii de dog na wuy ji na boroomam ñu gëmal bët ya baada ilyaasin wajadoo fii shara kafani lu ca tege say mbokk yëpp wëlbatiku ne nañu seet nu ñu def nañu jëndi càngaay nañu wuti nagu dëj kañ lañ koy robak tàgga yaag lépp di daw waaye yow génn nga àdduna nit ki bu génné aduna keneen ay wax ak def waaye moom noppi na ca ñoom lu ñu ko defal dootu ko def lu ñu ko waxalu dootu ko def wa qama man kana hibba an-nas fi ajalin nahwa al-mughassil yatini yughassiluni kala gënoon jege gën la sop mo xam doom la mba soxna mba borom kër mbaay bay amul len lu may def nag ngir fasiyene seti kula sang kula wajal ñu jébal la sa borom subhanahu wa taala wa qaala yaa qawmi nabqi gaasilan xasiqan xurran ariban ladiban aarifan fatni nañu seeti ku mën a sangu kan moo mën a sang ci dëkk bi ñu wuti koo xam ne mooy sang néew bi fa jaa ani rajulun minhum fa jarradani nit ay ñëw tàggale laag yére ya nga soloon toilette ya nga soloon ak bassin yaag sañse yépp nag mina ziyaabi wa aaraani fa afradani keroog lañ lay futti jël sa yére teg fale jox la benn mbalaanum càngaay wa awdauni ala al alwaaxi muntarixan teg la ci àlluwa joo xam ne ba ngay dund dawoo ca tëdd waaye wasaara fawqi kharirul ma yanzifuni jël ndox ma sotti ci kawm wa askabal ma min fawqi wa xasalani dadi sang ba mu set ngayul ni ñi sange ab néew wa albasuni siyaban la kimama laha wa zara zaara saadi hina ma hanadu ni yow day ba ngay dund mbub mu ami pos nga daan sol tay nak liñ lay solal du ami pos du am ay loxo yu ñi ñew waye menen mbub la mo xamne muso sol mu ni mel su ko defee nag ñu teg la ci jaat go xamne ne tëddukaay boobu musoo caa tëdd wa axrajuuni min addunia fa waa asafa génne nañ la àdduna génne la kër gi yóbbu la feneen fu bokkut fi nga daan fanaan ala raxilin bila zadin yubalixu nii moo ndax bi ngay dem yóbbaale nga yóbbal gu doy ndax jàng daa nga jaamu yàlla jaamu yàlla gu doy julli yaag koor yaag asaka ya la nga daan def ci nit ñu baax ñi ndax daa nga téye saw làmmiñ ndax daa nga dimbale way ñàkk yi boo watu da nga dem te doo yóbbaale ab yóbbaale yow jullit bi wa xammaluuni ala al aktaafi arbaatun يقعد لكن بقي من الرجال وخلفوني من شي من يشيعني وخلفي من يشيعني نيت ني توب تي غونغي بجيب بل صبرم سبحانه وتعالى جل سوف تك تي جل امام ني جيتل مو جولي جولي غو خامني موس امو ركوع امو سجود تا تاي نونو لا ني جولي كين جولي ولا نيغا خامني ني لا ني باخا جولي موتاخ صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لا لعل الله يرحمني قنا نيان يالا رك مو يرم لا يرمان يالا سبحانه وتعالى وانزلوني على قبر على مهل واتيلي تي بير باميل بو خامتني بي بوني لندمي وخدمو واحدا منهم يلحنني برب بو خامني موسو فا دوغ اك خطاي بامو خد وكسف الصوب عن وجهي لينظرني واسكب الدمع من عينيه اغرقني كاغا خامني نيو لا غنا جيغي ني نا خاج نانغي خول كو خول بو مجو waaye kero ngeen koy mujj a gis nag kero lay wuy ji boroomam dootu leen ko gis ba faw xanaa yéen a ko fàkki nag su boobaa loola mooy la nga xam ne moom la ñuy def ñu daal ne sotti leen suuf ci kawam jël suuf sa sotti ca kawam daal di tàbbal ay ñaan ndax yàlla yërëm la moom subhaanahu wa taala wa qaala hullu alayhi turba waxtanimu xusna sawaabi min arrahmani dil mihani fi zulmati alqabri laa ummun hunaka wala abun shaqiqun wala axun yu annisuni lëndamaayu bàmmeel yaay nekku fa baay nekku fa mbokk nekku fa xarit bu lay wetti li nekku fa yow do nga sa bàmmeel faridan wahidul qabri ya asafa ala al firaq bila amal yuzawiduni wa halani suratan fil ayn in nasarat min hawli matlahi ma qad adhasani أدهسني سبو nak ñu dem wacc la fa بي bi ali salatu wassalam neena nit ki bu ادنا aduna bañu sul ko ñako don sul bu ñi leen di won ginaaw ñuy muy dégg keppet keppeti dàllam ya noone nga xam ne noone lay génnee àdduna saa boo xamante bi nit ña dem nañ rek nga da ñu daal di lay dekkal dekkal nit ki li tàmbalee ci ndiggam ba jëm ko nag la ñuy dekkal ñu daan mooy dikk malaayika yi munkar ak nakir min munkarin wa nakirin ma aqulu lahum qad xaala amruhum jiddan fa afzaani ñoo xam ne moos kee dafa ñàng ba xamut kenn kee dafa soxor ba kenn xamu ko ñoy ñëw dij la di la laaj wa aqaaduuni wa jaddu fi suaalihimu maa lii siwaaka ilahi man yukhallisuni tay o mo fi kenn kuma yàlla yow rek la fi am ñi di ñëwul jima laaj ndax dana mëna tontu li nga xamne mom lañ lay tontu mom la alquran di wax ni yusabbitu llahu alladhina amanu fil lqawli bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah ku gëmon yàlla te nango top yalla lay saxal ca baat yooye ñu lay laaj kan mooy sa borom kan mooy sa yonent lan moy sab téere nga tontu ko tontu yi sell loolu màndargam texe la fam alayya bi afwin minka ya amali fa innani musiqun bi danbi murtahinu samay bakar lañ ma ci tayle ba xawma fu may jëm xana yaakaar yéen ba na di yàlla rek nak mom rek la yaakaar tay su ko defee nag ña nga bàyyi woon ginnaaw te xaasamal ahlu mali ba'da man sarafu bu ñu démé nak tambalé xol alal ji nga fi bàyyi won ak lu mu bàyyi bu mirage ba ñëwé ñu dajale sa yépp nak ñeneen don ko ñeneen jël ko def ci la ca la leen neex wasara wisri ala dhahri fa asqalani lu lenn rek lañ du don nak moy bakkar ba nga don def koku mom dañ la koy sëfaat lépp nga yobale fa nga jëm wastabdala zawjati ba'lan liha badali wa hakamatu fil amwali wa zakani say soxna ñu jox leen ñeneen nak ñooñu ñu di seeni borom kër yow nga wéet ak sa borom subhanahu wa taala kon mbokum julit fala ad dunya wa zinatuha bula aduna adduna war mukk wansur ila fi'liha fil ahli wal watani xoola li adduna def ci nit ñi ñi doon boroomi alal ak ñi doon boroomi taar ak ñi ñu daan dégg ñëpp suuf lekk na leen ba lekkaale seen yax wansur ila man xawa dunya bi ajmaiha hal raaxa minha bi xayri alxinti wal kafani ndax gis nga kenn ku jëm àllaaxira ku yóbbaale leneen lu bokkut ak càngaay kon bàyyi xel tagayit xusil anaa xusil qanaata min dunyaaka warda bihi jëlal doylu ci àdduna alal ji ngay wut mënoo koo jeexal boo ko amoon it dee bàyyi ko fi kon xusil qanaata min dunyaaka warda biha law lam yakun laka illa raxatul badani boo fi amutoon dara te amug wér képp mu war laa doy sëkk ci àdduna yaa saarix al xayri taxsud baadaha thamarun yaa saarix al ala wahadi yow mi ji lu baax ci àdduna bu ëllëgee lu baax rek ngay am yow mi ji safaan ba bu ëllëgee safaan ba rek ngay am kon yaa nafsu way xekki tuubi wa amali xasanan yow bakkan bi yëm naa sa toskare tuubal te delloo sa bopp ci yàlla subhaanahu wa taala asa tujaasayna baadal mawti bil xasani ndax lee yàlla fay la bu ëllëgee ci jëf yu rafet ya kon loolu bokk na ci li nga xam ne jullit bi war na koo bàyyi xel bu baax a baax a baax ci addunaam kon loolu daal mooy li nga xam ne ah bokk na ci li kenn ku nekk ci ñun di war di fàttaliku ndax yonent bi moo ko xoon moo ne uzkuru hadima lazab dee leen fàttaliku dee ndax de momu kat du jaas kon ñu war ko fàttaliku ci waxtu nek tayit yàlla subhanahu wa taala neena bu ëllëgé yowmal xiyaam laa zulmal yawma tay togn amul de yàlla du togn kenn ngir mom la wala ëpp la doole waye lo defon nak ñu delloo la ko laa zulmal yowma inna allaha sarixul hisab yàlla ku gaaw ab kalkin la ko set kenn ku ne la nga defon dañ la koy delo duñ la yokal mukk bakar bo defut yàlla ne wama rabbuka bi zallamin lil abid yàlla du tooñub jaamu mukk loo fa gis rek na nga xam ne yow fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara képp ku jëf lu tuuti lu mu néew néew ci aw yiw dang nga ko fa fekk képp ku jëf safaan ba ci safaan bay lu mu néew néew dang nga ko fa fekk kon mbokk yi nit ki war a bàyyi xel loolu bu baax delloo sunu bopp ci yàlla delloo sunu bopp ci li nga xam ne moo di jëf ci baax ci ak njulit jëflante jëflante bu rafet kon xam naa mbokk yi su fekkee Eh, jar nañu taxaw foofu foofu la ñuy taxawee incha allah tabaraka wa taala ba ngeen joxaat ñu kàddu gi incha allah. tabaarkalla imaam macha allah ah moom de xanaa takki bagaas rek waxtaan wi moom yàlla yàlla teg ñu ci njub. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ñu ngi jaa day jaajëfal bu baax a baax parce que comme ni ko waxee rek. Mm-hmm. Ah, bi ñu la waxee pour nga ñëw wax dëgg yàlla diggante bi matul ñeen fukki minute. nga bàyyi li nga defoon lépp ñëw. Ah? ah ma ne ngeen jégal ñu rek xam naa ne waaye lii rëy na trop ci ñun parce que it euh, lii wane na ne wax dëgg yàlla am nga foo it fa am nga foo teg sëriñ bi wala rek nga ne ah kon xaaral ma ñu préparé hmm. ñu ngi lay sant bu baax ci turu sëriñ bi di la sant bu baax ci turu ITFA waaye imaam xam nga jamono ji buñ ci agsee hmm. euh, dañuy def euh, at mi hmm. samedi bu jot sëriñ bi day dem ci état yi di gàmmo ji bu mu gàmmoo nag ba mu daj Mm-hmm. ba nga xam ne at mi jeex na. Mm-hmm. dañuy daje nag Washington ci sëriñ bi mm-hmm. wala Baltimore. def lu ñuy wax convention maanaam def ay journée cheikh. Euh, loolu nag mi ngi waaju ñëw. ndax nii nuy waxtaanee ti ti ci euh, euh, zoom bi ak yow. neen ko naa a defee incha allah. muy daje ak jeudi le vingt quatre. juma vingt cinq. ak samedi le vingt six muy Thursday Friday Saturday. twenty four twenty fifth ak twenty six incha allah. nu koy defee nag ci zoom bi. Mm-hmm. Euh, borom xam-xam yu bari di ko taxawee incha allah ak jànkatu ak waykat yi. Mm-hmm. indi dañu bëgg rek bu neexee yàlla. Mm-hmm. Euh, nu bàyyi la nga daaxal ko tuuti rek. Euh, fàttali nit ñi lan loolu ci nga xam ne ni mooy ñëw ci fan yi incha allah bu ko defee nu dellu soit ci question yi kon nag waa régie bu fekkee ñu jàppandal rek mën nga bàyyi mu jàll. mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib mi ngi noonu it fa ngoog mbooloo ma ngoog duy dañ moom sëriñ bi daan ànd ak yéen ci at mi état par état dem fa aljuma doon ñu xadara waxtaane tarixa bi dimanche samedi ñu waxtaani yonent bi alayhi salaatu wasalaam ja nu waxtaanee daayira bi waxtaanee Seex Seydil Hadji sëriñ bi bu jugee état bi dem ci état bee waaye xam ngeen ni jamono tëddee jamono bii ñu toll xam ngeen feebar bi am waaye looloo tax sëriñ bi bañ neenal itfa waaye du deñ di bégal njabootam mu sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib looloo waral asatise yi nekk ci itfa ak borom xam-xam ci réew meeg nekk Amérique sëriñ bi dajale leen jox leen kontaan. incha allahu taala njàngum alquran bégal leen sëriñ Moustapha Sy mu sëriñ dana ñëw jàngal leen alquranul karim ci xeeta jiit yoo xam ne kenn xamul nu mu mel bu ca noppee jël sëriñ Ahmed Sarr mu sëriñ Moulay moom itam incha allahu taala Ahmed Sarr dana ñëw ci njànginu alquran bu jéggi dayoo sëriñ bi nii incha allahu taala daañu jël ay boroomi xam-xam daañu ñëw waxtaan ak sëriñ Moulay Sy Mouhamadul Habib bégal leen moom itam loolu bu kenn kenn wuute ci yar ga moom sëriñ ci teey ga ci xam-xam bu sell ba bu ca noppee mbokk yi consul général El Hadji Amadou Ndanka Ndaw ci New York sunu xarit boobu le docteur Cheikh Alhaji Mouhamadul Mansour Diop ca Tiwaawoon moom itam docteur Alhaji Ousmane Dia ca Gambia di borom xam-xam bu mag a mag a mag mais mbokk yi dañuy delluwaat New York fekk fa imam Abdoulaye Diop moom itam incha allahu taala dana ñëw waxtaan ak yéen imam Cheikh Tidiane Diallo moom itam dana ñëw bégal leen mbokk yi Seyda Fat Bintou bu télévision Futur Média di soppe ñëpp dana ñëw moom itam bégal leen Seyda Fatimata Leet moom itam di borom xam mbokk yi soppe ñëpp xaritu ñëpp di njabootu Seydil Hadji Malick sëriñ Pam Makhtar Kébé moom itam dana ñëw ci xam-xam bu sell baak waxtaan mu am solo duñ ca yam sëriñ Khalifa Mbaye Mor Hadji Mbaye donte Mbaye borom xam-xam bu mag boobule dana ñëw waxtaan ak yéen mais mbokk yi xam nga lu ki ngeen bëgg sopp ko di xarit mboolem ku baax pap an moom itam incha allahu taala dana ñëw bégal leen ñëw waxtaan ak yéen ci ndigalu sëriñ bi waaye ren dañoo invité oustaz Modou Fall moom itam di borom xam-xam dana ñëw bégal leen ànd ceeg pap an mbokk yi duñ ca yam jànkat yaa ngoog woykat yaa ngoog ñii ànd ak ITFA ci Amérique mbay doon de mbay ma nga New York Mbay ma nga Atlanta Abdoul Aziz Ba ma nga ca New York Barakan ma nga ca New York Alhaji Mouhamad Seen ma nga ca moom Mouhamadul Kabir Seen moom itam dana leen bégal Ibrahima Mbuub ma nga Rali incha allahu taala dana ñëw bégal leen Abdoul Aziz Mbaye ma nga ca Allemagne dina leen bégal mbokk yi xaritu ñëpp soppeeku ñëpp ki nga xam ne ñëpp ko alxaaji Samb buy dem xamal fi muy jëm day tagg yonent buy dem xamal ni ma ngay sagali kër alaaji Malick ak kan alxaaji Ngañ Mbaay mu alaaji Mansour Mbaay mu Moussa Ale Mbaay jël seen dund jox lépp sëriñ si Ahmed Mouhamadul Habib mi ngi noonu it fa ñaanal leen jigéen ñi ñoom itam daañu ñëw wax cofeel gi nu am ci sëriñ bi waaye wax la njëkk muy xam it fu ñu ne woon xale yi itfa nañ ko daan def ci convention ba ñoom itam daañu ñëw xamal alquran di ñu leen jàngal tari ndax sëriñ bi xam leen jàngale ne na ko maamam Seydil Hadji Mal daan defee sëriñ Ahmed Mouhamadul Habib Magaca kon jigéenu ITFA ñoom itam dana ñëw am na ci ñoo xam ne ci leen la ñu newoon tey fan la ñu ne ak sëriñ bi xam nañu yàlla bëgg Seydina Muhammad jeex tàkk ci la tariixa bi waaye jeex tàkk ci Seydi El Hadji Malick njabootam Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib le 24 lay doon le 25 le bi ñu dëgmal loolu nag bu ko kenn kenn kenn wuute Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib. Euh, jërë ngeen jëf eh, eh, Imam Moustapha waaw waaw eh, Imam Moustapha di nu la xamee nga xam ne tubaarkàlla ci jàngale lan la xam moom ngay dunde wax dëgg yàlla moom nga nekk fii ci yar xale yi mhm. ci lu baax dëgg la boo gisee programme bi nga xam ne ni tabarkàlla jàll na mhm. noo gisee bi programme ba noo dem ci question yi macha allah xanaa di ko rafetlu lool di ñaan yàlla rek yàlla jàllale ko àggale ko ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee Mm-hmm. programme bu am solo la bu dëppoo ak jamono. Mm-hmm. te it euh, waxtu wu ne danoo war a dëppale ak jamono. Mm-hmm. rawante nag ki nga xam ne moo ko jiite muy Sidi Ahmed loolu rek. Euh, dana sawarloo ñu bari te it tuyaaba ju rëy def cee nekk. te it responsabilité def cee nekk muy yàlla moonu ko sant. Euh, gannaaw bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allama. te jàng du wees utlubul ilma walaw bi siin sakulin xam-xam fu ngeen mën a nekk te man ko fa amé ngeen wute ko fa loolu liggéey bu réeree la bu yàlla di barkel la te loolu mooy li nga xam ne moom la mag ñi doon taxawee macha allah yàlla na yàlla barkel ko. jërëjëf imaam xam naa ne tey incha allah nelaw du neex ndax it li fi jaar tabarkàlla noonu lay demee ñaan yàlla rek yàlla teg na ci salaatal mustaqim waaye pour xaar rek nit ñi poser question. Eh, question bi ma doon laaj rek mooy eh, dafa mel ni ku sa àpp jot nga dem te it eh, da ngay toog place yoo xam ne wala nga julli ba pare ne yàlla ma yàlla may fan wu gudd mhm. mu mel ni kon ñaan ñaan googu daf ko jaratul woon mhm. parce que li ngay ñaane fan wu gudd te yow sa fan am na fu ko fixé mu mhm. mel ni ñaan googu daf ko jarul woon imaam loolu mën a wax ci loolu dëgg la ñaan dafay lu am solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne adduaau muxul ibada am feneen fu mu wax ne adduaau huwal ibada ñaan mooy jaamu yàlla am foofu dafa wax ne ñaan moo di yuurug jaamu yàlla ñaan fan wu gudd nag dàqoowut ak dig ba nga xam ne moom la yàlla rëdd ne nit ki du ko weesu wala minute ba nga xam ne du ko weesu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na xadis yu mu wax lool ne nangam day yokk aw fan di guddal euh, euh, di guddal aw fan nangam day yokk aw fan ku bëgg fan wu gudd defal nangam del sarxe wala day eh, del def nangam loolu bari na ci xadis yi loolu nag dax xawut ak li nga xam ne mooy alqada wal qadar yàlla dana dogal mbir te du ko atteegoon lay teemu atte na ko bi machiatihi lay nekk muy ci coobareem te loolee ñaan dana ko yokk muy guddal aw fanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci saxaaba yi ku mu fan wu gudd te ñaan nga dafa nangu kooko yàlla may ko fan wu gudd loolu nag tekki wut ne yàlla bindaloon na ko dig boobu da koo weesu wala da caa aggut waaye yàlla bi ci coobareem mooy dogal dara mooy dogal dara ba noppi du ko atte mooy atte dara ba noppi te du ko dogalagul ñaan nag mën na koo yokk ni nga xam ne noonu la yokkee wërsëg di def yu beneen yu baree bari di jéggale ay bakkaar di tax nit ki wér bu feebaree ñaan yàlla wéral ko Euh, kon loolu moo tax ñaan moom ci anam yëpp lay dox moo xam ci fan wu gudd la ko ki yàlla fixé ab bisam itam du tee sañ naa ñaan fan wu gudd ndax dañoo wax ne jëf yi gën ci jëf yi moo di muj gu rafet jëfi mujj gu rafet jëfi mujj gu rafet nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na ki gën ci yéen mooy man taala umruhu wa xasuna amaluhu ki gën ci yéen mooy ki gudd fan ba noppi ay jëfam rafet kon gudd fan mat na ñaan bu baax sëñ Fall jërëjëf kon mbokk yi yéen a ko déggandoo képp koo xam ne rek bëgg a poser question euh, mën nga mën nga jëmp yi wala nga yëkkati sa loxo waaw imam euh, dañuy wax ne nit bu génnee àdduna bu ko lu mat ñeent nit ñaanalee euh, mu yàlla jégal ko mhm. waaw bari na xadis yu wax ne lu mat ñeent fukki at bu ko ñeent nit bu ko ñaanalee yàlla jégal ko wala bu ko lu mat ñetti sàppe jullee yàlla jégal ko loolu yëpp nag euh, dañu koy yaakaar ci moom te jëfe ndigal waaye kenn daa sëñ te doge ci dogu ci ne wàññi naa ba muy ñeen fukki ju nit euh, fekk jiit euh, jëbbal nañ ko boromam wala ñaanal nañ ko kon dogu ci dogu naa ci ne yàlla jégal na ko déedéet loolu la ñuy tere ab jullit da def la ñu digle ba noppi am ca yaakaar ne la ñu woon ca la ñu doon wax yàlla mën na koo def mi nga xam ne mooy borom coobareem li ñuy bañ nag mooy ki ci dogu ne ñeen fukki nit ñaanal nañ ko kon dogu ci naa ne nit dina dem àjjana ba sax ci yeneen mbir yi nit dana baax ci aduna ñu gis ko mu daan jaamu yalla lool doon ko sell doon ku yiw mësuñu ko xam ci lenn lu baax léeg nga di ne koka ma nga ci àdd waye lool ak xir la rek li ñi def moy yaakar ca mom àjjana ngar melokan wa mu meron lool la julit bi sañ wax. jërëjëf imam mbok yi kon euh, line bi ubbi na képp koo xam rek bëgg nga poser question mën na mën na mën na euh, poser question euh, imam xana rek dellusiwaat tuuti parce que dañuy wax ni nit bu génnee àdduna. ñett yii dina ñett lépp dina dog ba mu des ñett ndax mën nga fàttaliwaat ñett yooyu. waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa waxoon ne. ida maata bnu aadama inqataa amaluhu illa min salaatin sadaqatun jaariya aw ilmun yultafaxu bihi aw waladun saalixun yadcu lahu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne nit bu génnee àdduna yëppam dog ba mu des ñetti yëf yi bi ci njëkk mooy sadaqatun jaariya sarax wala jëf ju baax jum fi bàyyi nit ña di ko jariñoo kooku yool bu ca luñ ca def rek tuyaaba ja da ko fay fekk euh, aw amalun saalihun mooy jëf ju baax joo xam ne da ko fee bàyyi def ko fi tabax jàkka gasub teen ak yeneen ak yeneen yu xeet yu mel noonu Euh, defar jàkk fu nit ñay euh, fajo wala ba ci hôpital sax jëf yu baax yi ñu fay def da ko fay fekk aw waladun saalihun yad'u lahu mooy doom ju baax joo xam ne yaroon na ko ci diine jàngal ko diine ba bu fi jógee mu di ko fàttaliku di ko ñaanal ñaan googee da koy fekk fa mu tëdd kon ñett yi mooy yi nga xam ne bu nit ki génnee àdduna mu di ko fekk ca bàmmeelam di ko fekk ca euh, barzaq fa nga xam ne fa la tëdd yàlla di ko ko defal ci téere biiw kon loolu lu jar a bàyyi xel la kenn ku nekk soo ko mënee nga gas ab teen soo ko mënee nga tabax jàkka xatta sax foo xam ne ni ay jëfandikukaay lu yu doomu aadama yi soxla nga def ko ngir yàlla jëf jooju loolu yàlla da koy fay boromam loolu bokk na ci li ñuy tudde waqfu mooy sama nangam lii bu ma fi jógee nañ ma ko defal ci yoonu yàlla nit ñi di ko jariñoo tuyaaba jëpp day fekk borom fa nga xam ne fa la tëdd ak jëf ju baax joojule ak ñaanuk doomam joojule jërëjëf mbokk yi mu ni ko waxee rek ñuy ànd ak imam Moustapha Diop imam eh, kër Serigne Touba. Aïcha Ali. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. alaykum salaam wa rahmatulah. man la Pape Diagne fii ci Tiwaawan Washington. bisimilah Haj Pape. waaw sëñ Pape ñu ngi ñu ngi sant bu baax imam Diop ñu ngi sant. waaw kay Diagne jërëjëf. dama dégg ñuy wax naan eh, mag bu demee ba am lu toll si eh, juróom-ñetti fukki at maanaam 80 years old. Euh, sunu su génnee àdduna sunu borom da koy da koy da koy jégal jégal ay baakaaram euh, mhm. jégal ko <coughs> euh, beneen bi dañ ko yóbbante kii nee na boo génnee àdduna comme ni mu wax sànq ba mhm. malaaka yi ñëw nee na bu ñuy wax ak yow ban làkk la ñuy làkk mhm. ah, jërëjëf ci ñaari laaj yooyu le laaj bu njëkk bi mooy dañoo wax ne rek mag mu am juróom-ñett at bu génnee àdduna yàlla jéggal ko loolu day amuñu ci tegtal yu leer ala kulli xaal ki yàlla di jéggal mooy ki jéggalu ay bàkkaaram mooy ki nga xam ne yàlla àtte na ko ci yërmandeem jéggal ko kooku la yàlla di jéggal waaye jéggal ak ñàkk a jéggal euh, tëkkuwut ci ay at mag mi daal bu fekkente ne am na juróom-ñett fukki at te xàmmeetu dara maanaam nag na mënatut a def lu baax mënatut a julli wala muy jàngal xuraan wala muy woor su boobaa jëf-jëf yi di def dootuñu ko ci àtte waaye jëf ja nga xam ne ba mu koy def ma nga ànd akum xelam lu mën di am ci at itam dañ koy àtte ci jëf jooja su demee ba xamatul dara nag su boobaa moom kenn du ko àtte ci jëf ji yàlla foofa la ko yàlla di yërëme ca muy def ñaareel bi mooy eh, li nga wax ne malaayika miy laaj ci bàmmeel nit ki ci ban làkk la koy laaj liñ ñu ci wax ginnaaw làkku ëllëg yowmal xiyaam làkku waa aljanna arab lay doon te mboolem xadis yi ci ñëw yëpp ci arab lañ ko wax ci arab lañ koy laaj man rabbuka ma dinuka man nabiyuka li lañuy laaj ki nga xamne mo nek ci bamelam lola lañ koy laaj su fekkente ne nag déggutoon arab itam su nare tax yàlla moko yenk walal mu dégg lolé ñi wax lolou motax ay alquran ba di wax ni yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli fi lxayaati dunya wa fi l liñu lay laaj boko xamul yàlla la koy xamal sol ko nga mën tontu tontu yëpp jërëjëf sëñ Fall. macha allah jërëjëf Diop. Hmm. asalaamaaleykum sëñ Fall. waaleykum salaam. Eh, Imaam eh, Moustapha Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di rafetlu bu baax waxtaan bi ci kontaan lool macha allah. alhamdulilah ñu ngi lay nuyu. Eh, bon xam naa rek dañuy doon sàkku rek pour nga gën a leeral maanaam comme thème bi ni ñëwee nii. Hmm. jullit bu génn aduna mm-hmm. mu xam muy góor wala muy jigéen mm-hmm. euh, nu ñu koy waajale itamit mm-hmm. ak ñen ñoo ko war a waajal ndax jamon dafay toll foo xam ni euh, bu fa julit bu góor jógee dafa naa ne am na ñu ko war a taxaw si góor ñi bu dee julit bu jigéen am na ñu ko war a taxaw si wàllu jigéen ñi te itamit loolu daal lañ bëggoon nga ñëw si tuuti pour leeral ko pour mbokk yi ñun ñëpp ñu mën ko fàttaliku incha allah Euh, taxawu ku génn àdduna euh, te mooy la ca gën a am solo mooy sang ko sang ko la ca des mbooloo koy def bu dee jàppoo ga bu dee dugal ca bàmmeel ba waaye amaa jëmi toppatoo sang ga sang ab néew dafa bokk ci farata yi euh, su fekkee mën naa am ña ko war a sang yit ña ko gën a jege bu ca ñu amee bu amee ñu ragal yàlla te maandu ñooña lañ ci gën a taamu ñu ragal yàlla te maandu bu dee góor ay góor a koy sang moo xam ñett lañ wala ñeent te cangaay li ci ëpp faw mu mat ñett wala ñeent bu dee jigéen ay jigéen a koy sang moo xam ñett lañ wala ñeent doo bàyyi mën naa sang doom ju ndawa ndaw bu dee jigéen la bu dee doom ju góor it mën na koo sang borom kër mën naa sang soxnaam te bañ a xool awraam bu dee jigéen it mën naa sang borom këram te bañ a xool ab naa waaye nag ci kaw bu fekkee ñeneen nekkuñu fa bokk na ci liñ ci gën a taamu daal moo di ku ragal yàlla te maandu buñ ne ku ragal yàlla mooy ca la ñuy gën a yaakaar yërmande yàlla ci moom bu ñu tuddee maandu mooy koo xam ne nu mu fekk néew ba melitam itam bu génnee du ko wax feneen ndax léeg-léeg nit faatu ci anam goo xam ne xaj na jëmm ci am lu ca ne mbaa lu ca sikk bu dul ku maandoo mën na ko waxaat feneen te loolu du sutura loolu daal bokku ci li nga xam ne taamu nañ ko ci sang ab néew la ca des nag mooy jébbal ga boroomam ci wàllu gasal ko ak yóbbu ko loola mbooloo koy def ala kulli xaal daal kako ña ko gën a jege suñu fa nekkee ca man ko ñoo koy sang suñu fa nekkul bu fekkee daa am ñu ñuy fay ca dëkk ba ñu fay leen ñooñu sangu nga xam ne ay seenu liggéey suñu ko defut nag yeneen dëkkandoo ya nga xam ne xaj na am na ku ko ca man te it loolu li ci jar a fàttaliku suñu jamono ji mooy jàngalewaat ko bu baax te di ko fàttaliwaat nit ñi ndax néewaa nañu mën a sangub néew dëkk bu mag yii nu nekk fi mu ne koo ci doon seet tey boo doon wut ku sangub néew mën naa am nga sonn ci te julit jullit bu génnee àdduna buñ ko dee denc fii eh, ay ay moroomi jullitam ñoo ko war a sàng def ca moom la ca war lu ko mooy da ngay fay ñeneen rek ñu sangu ko te ñooña nuñ ko sange xaj na eh, noona rek nga cay am kon bokk na ci li ñu war a jàng moog li nga xam ne moo di miraas ba ñaari xam-xam yooyu du rëcc te ñenn ñu nekk itam man koo def te it ñu baree bari dañ koy ragal wala ñàkk ko mas a def ko wax tey mu dar gémiñam ne la mun damaa ragalub ne wala ñëwu ma ko sang te loolu nag bokkut ak lii am solo ndax képp koo xam ne mas nga koo def benn yoon da nga ci jëlee loo xam ne da nga ne lii yeex naa koo def da nga ci jëlee ragal yàlla da nga ci jëlu ak fegu da nga ci jële lu lu rëy dana jóge ci yow loo xam ne da nga àdduna dootu jaral dara maanaam def ko lu am solo la daf la yokk ngëm yàlla lokk yokk la góorgóorlu yokk la xam ne fii ngay mujj bu ëllëgee kon ñu ngi koy digal ñëpp jërëjëf sëñ Fall Oustaz ma ne ko Oustaz waaw jërëjëf euh, sëñ Fally euh, jërëjëf imam euh, Moustapha mhm. loolu am na solo lool xanaa beneen laaj bi ñu si tofor lek mhm. mooy lekk-lekk aada day ñëw taxaw diine taxaw mhm. waaye nit ñi dañuy toll foo xam ne duñu ràññee ban la ci diine lan la ci diine moom Mm-hmm. Euh, léeg-léeg nga gis tey ñoo xam ne dañuy am seen néew mu génn àdduna ñu ne faww rek ñu andi mbokk yëpp ñu tiim ko balaa muy dem. Mm-hmm. Euh, yooyu yëpp dafay daal di nekk di xew léegi si jamono. Mm-hmm. léegi ñuy laajte rek lan la diine euh, teg foofu maanaam ñi nga xam ne dañu daal ñoom <clears throat> seen néew daal fok ñu andi njaboot gi yëpp gis ko. waaw su ko defee ndax loolu farata la am du farata. waaw gis gis li bokk ci yow. moo xam ndey la wala baay wala doom wala soxna jëm bu génnee àdduna nga xool ko xool bu mujj wàññiwu dara dara nekku ci te loolu boo ko dee seet dafa mottali kolori sax dafa baax lool donte nag amu fa lu ñuy tuddee farata ak sunna waaye dara da cee nekkul lu baax la euh, li ñuy def ñaare mooy bu nit ki génnee àdduna bañ war koo yóbbu wala ñu sangi ko wala ñu di ko jébbal boroomam dañuy ubbi kanam nga rek ñenn ña nga xam ne ñoo sës ca moom mën nañoo ñëw xool ko ba sax mën nañ ko fóon maanaa teg sa bakkan ci ab jëm wala yu demee noonu loolu lépp ko lëre da gu gu baax la dara nekku ci lislaam bañu ko waaye nag diggante aada ak lislaam moom bu ñëwee rek dañuy jiital lislaam moo tax yàlla ne fas alu ahla zikri in kuntum la taalamuun su fekkee dañoo dafa am ñu dogu ci ne dañ koo bëgg a gisit dara nekku ci ñu gis ko la ñuy bañ rek ci ab néew mooy béccangal ko maanaa ñàkkal ko sutura wala ñu ubbi ko bàyyi noonu ñëpp di ko xool loolu dañ koy bañ rafetlu wuñ ko ci jëmm amaa nag ña ko jege mën nañ koo xool seen xool bu mujj dara nekku ci wallahu aalam eh, jërëjëf eh, imam Faly xanaa man di laaj bu mujj rek bàyyi gars yi ñoom itam ñu laaj eh, waaw mbokk mi dafa yónnee question mu ne ndax néew gannaaw buñ ñu ko jullee ba pare mënees na koo xaare wala buñ ko jullee rek dañ ko denc waaw li gën ci ku génn àdduna nag ñu daal di koy jébbal boroomam fa saasa bu fekkee amul benn gàllankoor bu tee ñu mën ko jébbal boroomam la gën ñu daal di koy jébbal boroomam léegi nag ci sunu aada da ngay gis ne nit ki faatu na tey ñu ne nañ ko fanaanal ndax bu ëllëgee bokk yi ñëw ñëpp mën koo teewe ba tey baax na waaye la gën nag mooy nit ki bu génnee àdduna rek te amul benn gàllankoor ñu jébbal ko boroomam subhaanahu wa taala Euh, euh, moo gën imaamu ali radiallahu anhu doon na dénkaane ne bu ma génnee àdduna kat fa saasa na ngeen ma daal di jëbbal sama borom su fekkee aw yiw la wu baax ma teel caa jot su fekkee safaan ba laa fay fekk ma noppal leen loolu mooy li gën su ma fa dee fekk safaan ba kon ma noppal leen ngeen génn ci man su dee aw yiw laa fay fekk it ma teel cee jot loolu daana ko dénkaane ba tax na kon buñ ko mënee teelal it moo gën amaa nag ni jamonoy def nit faatu fii ñu war koo xaare def ko ci avion di ko yóbbu feneen ak yooyu loolu daroora la maanaam dafay lu lu mënta ñàkk faaw ñu xaar ko waaye li gën daal balay néew ba di soppiku wala muy mel ne neen ñu jébbal ko boroomam fa saasa loolu mooy gën wallahu a'lam jërëjëf imaam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa Santubu euh, bu baax si euh, leeral yi nga indi ci waxtaan bi yépp quoi ak sa disponibilité comme ni ko alaaji Fall li waxee rek. jërëjëf euh, man de dama am benn lu ma bëggoon rek pour ma dégg ko nag ma bëggoon fekkee da ñu si mën indi tuuti leeral rek. Mm-hmm. dafa mel na dama dégg mm, ñu ne déedéet dafa mel ni rek da ngay jóge tukki la daal da ngay jóge si kër gii rek dem ci kër gële. Mm-hmm. waaw léegi mu mel ni mu mel ni kër gële nag dafa am euh, loofu fu war a yóbbu mhm. pour boo demee euh, sa nekkin mën faa neex mhm. alors ah, léegi mu bokk ci nga xam ni euh, mën na ko dawal foofu mhm. yi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko te ñu si ëpp si ñun ñoo ngi koy def mooy jullee ki woora ki asaka aje bàkk ak mu mel na dafa am leneen li nga xam ni nag mooy euh, li nga xam ni boo ko ci yëkkatee yu am solo. Mm-hmm. Euh, yu jiital ko foofu. Mm-hmm. mel na loolu mooy li nga xam ne mooy ëpp solo sax. Mm-hmm. wala mooy ëpp njëriñ wala mooy ëpp bànneex boo fa àggee. Euh, ci julli yeeg woor yeeg asaka yi. mu mel ni dafay mel ni léegi nga yëkkati lu am solo ci. Ah. lu la yàlla wërsëgale. waaw ah. nga daal di ko jël joxe ko. Mm-hmm. def ko ci ngir yàlla mu jëm foofu mm-hmm. euh, loolu daal laa bëggoon fekkee ni ni ma ko déggee noonu la mm-hmm. defee rek nga gën ko mën a leeral sama bopp bi ak ñi nga xam daal ñoo ngi déglu waxtaan bi incha allah dëgg la euh, dëgg la sang bi euh, bala may ñëw ci laaj bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la xamal ne it sunu kollëre ak sëñ Faali ak mboolem xadra New York dafa yàgg dëgg la euh, dama taxawal daaray jàngale internat ci Sénégal ñu sose ko fii ci New York. kero bis bañ ci njëkkee woote ngir di ci laaj ndimbal euh, ñenn dañ cee mënut waa xadra bi ñu bokk ko ñoom daara ji at mu nekk ñu woote ko at mu nekk ñu woote ko ba daara ji taxaw tey ay gone di fa mokkale alquran di fa jànge xam-xam lépp ci ndimbalul jullit yi nekk fii waaye ñenn dañ cee rawut nag waa xadra bi di samay soppe di sama lépp wax dëgg yàlla moo tax lépp lu ñu ma sàkk wala lu ñu bëgg ci man rek lu ma jàppoon danaa ko bàyyi. te ñëw ñëw ñëw ci loolu. te mm. loolu yàgg na lool. waaw defe naa Faly moomu xam na ci dara. wallaay ndeysaan noonu la demee de jërëjëf noonu la demee. Mm. Euh, jërëjëf ci laaj boobu mbokk mi dama lay jox rek ay euh, projet yoo xamante ne yàllaa ko ci alxuraan. Mm-hmm. yàlla nee na yaa ayyuha alladina hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim yéen ñi gëm yàlla ndax du ngeen ñëw ma won leen commerce mu woom lool boo xam ne moo leen di musal ci mbugal yu metti àllaaxira yooyu mu mel ne faali dana ko waaw loolu lan la mu ne ko tuminuuna billahi wa rasuli di gëm yàlla gëmub yonenteem muy benn mu ne ko watu jaahiduuna fi sabilillah te ngeen di jihaad te ngeen di jihaad ci yàlla te ngeen di jihaatal yalla ci lan ngeen di jihaatal yalla bi walikum ci seeni alal di joxe te yalla tax wa anfusikum ci seeni bakkan te nangu caa sonn dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun lolu mo gën ci yéen eh, yonent bi ali salaatu wasalaam dafa wax ne bokku na ci li ngay laaj te mu gëna mëna yobbu nit ki aljanna modi husnul khuluq muy rafet ah. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne maa shay'un asxala fi mizaani al mumini yowma al qiyaamati min min xuluqin xasanin mhm. nee na amul lenn lu gën a mën a diisal balance su jëf ju baax ëllëg yowmal xiyaam lu raw jikko yu rafet jikko yu rafet maanaam jikko yu rafet moo bokk ci li gën a mën a diisal balance su jëf bu ëllëgee yonent bi teg ci ne wa inna allaha la yabgadu alfaaxisa albadia nee na te ngeen xam ne yàlla moom borom jikko yu ñaaw ak làmmiñ yu ñaaw la gën a bañ ci àdduna kon jàppal ne bokk na ci liy diisal balance su jëf ëllëg yowmal qiyaam moo di jikko yu rafet jikko yu rafet nag mooy loo xam ne lislaam da koy nangu aada nangu ko xel rafetlu ko loolu mooy jikko yu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ca loolee na ngeen xam ne fonk juli yi juróom bokk na ci li taxa dem àjjana waaye jël sa alal itam def ko ci yoonu yàlla bokk na ci li nga xam ne dana yóbbu nit ki àjjana yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na ألا أخبركم بالمؤمنين من أمينه الناس نجين خمنا كوجم يالله ما يكون ندني وولي تيجي فلان تيمام بوك نجي لي دوغالي أجنا ما يفي خبر دون نيت كوور كوير كو خمنا كوكو كوكو وخرج من الكوكو كو نيت كباخل نيت كوولو نلين على أموالهم وأنفسهم دوتو نيت كي ألالم دوتو نيت كي أبدرم دورو بوك نجي لينغ خمنا نيت دنا جي فاق وجه في باخ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ab jullit dëgg mooy koo xam ne jullit ñu mucc nañ ci aw làmmiñam ak loxoom du ca lor kenn waaye ki nga xam ne itam mooy dem àjjana bu ëllëgee wal muhaajiru ñu di ko tudde koo xam ne da ngay gàddaay dem man hajara ma min al xataaya wa sunub koo xam ne ne nga fi kupp ay bàkkaar ak ñaawteef kooku mooy ki nga xam ne mooy texe bu ëllëgee loolu bokk na ci jëf yi nga xam ne dana dugal nit ki àjjana xam nga bu ëllëgee dañuy bu ñuy teewal jëf yi ñàkk a tooñ yàlla goo ñàkk a tooñ bokk na ci lilay lay ndax bu ëllëgee ñetti kuréeli nit ñooy am maanaam ñetti occupation ñooy am ñaari occupation yi mooy ñi nga xamante ne bii dañuy balonte àq ak a xuloo ka xeexoo ci maa la lebaloon langam yaa ma ameel sama àq jox ma sama àq loolu mooy al ardul awal ñett ñaar ñaar ñaar yooyu mooy ñaari teewaay ñaari mboolo mboolo yi ba ñetteel nag mooy bu ñuy joxe téere yi nit ñi ci seeni loxo ku ñu joxe sab téere ci sa loxob ndejoor nga rafet njort ci ne da nga texe ku ñu joxe sab téere ci sa loxob càmmoñ nga rafet njort ci da nga texe loolu moo tax Omar ibn Khattab radiyallahu anhu doon wax ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu hmm. seet leen seen bopp fii ci àdduna balaa ëllëg ñu di leen seet calcul leen seeni jëf fii ci àdduna balaa ëllëg ñuy calcul seen jëf hmm. luñ jubli ci loolu mooy nit ki bu suba bu xëyee suba ba ngoon war naa xool ba xam tooñ na fi moroomum jullitam wala déet war naa xool ba xam jël na fi àq jàmbur wala déet war naa xool ba xam war na fi ab dig bu mu dig doomu aadama am déet su fekkee loolu amut mu xam ne kon ma nga ca la neex yàlla xaasibu anfusakum xabla an tuxaasabu mooy calcul leen seen bopp bala ñu leen a calcul kon jëf yi taxa e, dem àjjana bari na bokk na ca sarax bokk na ci alkalaamu tayyib mooy wax ju tey képp sarax la yonent bi nee na kalimatun tayyibatun sadaqa baat wax ju rafet képp sarax la te sarax soosu day fekk nit ki fa nga jëm ak yu baree baree bari kon daal ci gàttal loolu mooy euh, laaj boobu. jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf. waaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, Cheikh Moustapha ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax. waaw ñu ngi lay fay la sa mbokk Pambay fii ci Baltimore Maryland. waaw wax nga dëgg Pambay mu yàgg ma de xanaa. waaw moom waaw alhamdulilah. alhamdulilah jërëjëf waaw. ñoo ngi sant yàlla ci mm. waaw ñoo ngi sant yàlla ci sa taxawaay ndaxte yow taar nga ci euh, ci diine gi sa nekk ci Amérique yokk bu rëy la ci diine gi yal na yàlla dëgëral sa taxawaay amiin ñoo ngi rafetlu tamit tamit mm. euh, ni ngay jokkee mbokk gi ci biir l'islam di ñaw diggante ci kër yi yal na la yàlla jàppale bu baax ci loolu ci barke yonent bi amiin yaa rabbal alamin di nuyu mbokk moom tamit eh, mbokk mu baax moom Faly Ndiaye. Mm-hmm, eh, ak mbokk yi nga bokkal plateau bi yëpp suñu mbokk soxna Amity Yane Seck foofu ci Rhode Island. dëgg la ginnaaw ginnaaw. jërëjëf Hadj Pape jërëjëf waaw jërëjëf bi sang bi. Mm-hmm. Eh, Cheikh Sidi Ahmed. Mm-hmm. moom mi nga xam ni moo ñu jàppale ci lii lépp di gën a dundal mbokk gi ak diine ji. wante imam dama dégg. sànq nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. dafa jàngale commerce mm-hmm. commerce boo xam ne am na solo wante dama commerce dafa mel ni ku am lu mm-hmm. muy weccoo moo koy mën wante ku ku yorewul dama xamul kon na ngay mën a commercer li ma bëggoo mooy euh, nit ki moom bu fi jógee rek ay jëfam dagg na doomu aadama moom bu jógee fii rek bu mhm. deewee rek mhm. téere jëfam dafa mel ni tëj nañ téere bi ma doon laaj ndax euh, su ma fi bàyyi woon tey daare alquranul karim wala mu mhm. bàyyi woon fi garab wala bo ma gis ñuy tabax ab euh, ñuy tabax l'école ma joxe ci sama mille francs wala deux mille ndax bu ca xale ndongo yi jàngee dinaa ci am dara waaw wala boog su ni dafa am ñoo xam ni dañu nekk loo xam ni yàlla sopp ko lool ma jum dugal ci sama xaalis loolu continuer ndax sama téere jëf dañ ko ubbi sama ginnaaw di ci bind bàkkaar yi ñooñu di def benn xam naa pour ma bañ a guddal ñaareelu laaj mooy comme ci li ñu wax rek ki amul xaalis mënul commerce ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ na fi ci biir alquranul karim wala ci salaatu yi Mm-hmm. yoo xam ne ku koy def booy sukuraat di nga am lu la jàppale. sar mm-hmm. wu la jàppale. Mm-hmm. wala boog booy jéggi siraat da nga am lu la jàppale wala daal ca taxawaayu bis penc ba da nga alquran ndax am na saar yu a taxaw jàppale la. xam naa daal euh, Cheikh Moustapha loolu ñu bëggoon a euh, leerlu. ñoo lay gërëm di sant xam nañ ngeen ajuma xat na ci yéen. bis bi dina gudd ci yéen mais terewul. sëñ Ahmed mi ngi soxla euh, yoon wi soxla rek nga nga bàyyi lépp ñu ànd ak ñun. yàlla yàlla yokk sa wér dëggal sa taxawaay jërëjëf dëgg la amiin waaw bokk na ci eh, laaj bu njëkk bi nga laaj eh, mu mel ne sax ci biir wax ji jàlloon na ci ndax nit ki mën naa def dara loo xamante ne bii mën na koo jariñ ëllëg gannaaw bu duggee àdduna bu génnee àdduna waaw loolu mooy la xadis ba rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ida maata bnu aadama inqataa amaluhu illa min thalaasin nit bu génne àdduna jëfam yépp day dog ba mu des ñetti yëf yi sadaqatin jaariya aw amalin saalihin aw waladin aw amalin saalihin aw waladin saalihin yad'u la maana nit ki bu génne àdduna sadaqa jaariya bokk na ci loolu ngay wax daara joo xam ne da nga caa bokkoon wala nga moomal ko sa bopp wala jàkka joo xam ne eh, da nga bokk ca tabax ba nit ñi di ca julli lépp lu ñu fa def ci lu baax yàlla daf lay sédd ca yool boobee ëllëg loolu mooy euh, amalun saalih ak sadaxatun jaariya muy jëf ju baax ak doom ju baax joo xamante ne bii moo lay ñaanal bu ëllëgee masalan bala yàlla séddee ak njaboot yar nga leen ci diine jàngal leen seen diine ba duñ la mas a fàtte muk boo génnee adduna ñu di la ñaanal yàlla yal na nga jéggal sama wajuru yal na nga ko baali bàkkaaram ak ñaan ya nu mu toll ñaan yooyee daf lay fekk ca bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na su ngeen rombe seen morom jullit ñi tëdd ci bàmmeel yi na ngeen leen nuyu ndax su ngeen leen nuyoo danañ leen fay kon jëf yu baax yooyu yëpp day àgg waaye itam nag noonu la nit ki su fekkee dafa bàyyi dafa fekk fu ñuy defee bon safaan ba wala mu sos ko bàyyi fa ah lépp loo xamante ni bii am na ca bàkkaar it ña ngi ko fay def ca bàkkaar dana ci am loolu moo tax yonent bi waxoon ci xadis ne man sanna sunnatan xasana falahu ajru wa ajru man amila biha waaye man sanna sunnatan sayyi'a falahu wisru wisru man amila biha ku sos dara ci àdduna bu dee jëf ju rafeta luñ ca def lu ci lu baax nga am ca bu dee safaan ba itam bàkkaar yu ca jóge it nga am ca bàkkaar yi ba noppi yenu bàkkaarum ñooñee nga xam ne ñoo ca doon def yal nañ ci yàlla musal hmm. euh, beneen bu mujj bi moo doonati moo doon ndax ci saaru alxuraan yi am na mhm. ci ay joxañ yoo xam ne ok ndax ci saari alxuraan yi alxuraan lépp lu baax la lépp luy tax a mucc ëllëg la lépp luy taxa a euh, am ngërëmal yàlla la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na iqra'u suurata yaasin li mawtaakum ñenn ñi nag defoon ne nit ki bu faatoo ba noppi la waaye yonent bi daa waxoon ne bu nit de waaj a génn àdduna na ngeen ko jàngal saaru yaasin ndax day woyafal ruuga nañu koy ñoddee na ruuxa di génne maanaam sukuraat su yomb lay am su fekkee jàngal nañ ko saaru yaasin ñaareel ba it nee na bu fekkee nit a ngi waaj a génn àdduna na ngeen toog fi wetam di wax laa ilaha illa allah boo ko waxee benn yoon rek doy na te ko ko sax sax ne ko waxal da wax rek ndax mu roy ci yow mën naa am boo ko ko euh, dicté ne ko ko wax ko mu bañ te su boobaa day nuru ku weddi waaye da nga koy wax fi wetam rek ndax mu topp ndax mu toppandoo la su fekkee xelam demul ci wax laa ilaha illallah bokk na ci yooyu nga xam ne day eh, eh, taxa nit ki am ak texe ak ëllëg ba alxuraan ji ngay jàng dana tax nit ki yombal eh, jéggi siraatam dana tax nit ki yombal mbugalum bàmmeelam ndax alxuraan day ramm bu ëllëgee maanaam nit ki bu nekkee ci bàmmeel julli dana taxaw ramm ko su fekkee daana julli alxuraan dana taxaw ramm ko su fekkee daana ko jàng koor niki noonu la jëf yu baax yi dañuy taxaw di ramm boroomam kon nit ki lépp lu mu mën a def rek ngërëmal yàlla ak tuyaaba rek lay jur incha allah. jërëjëf sëñ Moustapha Mamour Cissé Hadj Mamour. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. leen di gërëm di leen sant sëñ Moustapha. waaw ah, jërëjëf leer bi kontaan. alhamdulilah. Eh, di gërëm ñëpp ñu nekk ci plateau bi rawatina ak di Ahmed mi nga xamante ni moo ñu baaxee li ba yàlla indil ñu si programme yu mel nii. Eh, li ma bëggoon a laajte mooy eh, jamono dafa dox tey ba nga xamante. Mm-hmm. dafa naa am na àq yu war. Mm-hmm. suñu diggante ñun jullit yi. Mm-hmm. ak suñuy dëkkandoor suñu wàccee liggéey. yooyu lan mooy bi nga xamante mooy waree yi mm-hmm. parce que da nga dañu dëkk si barab yoo xamante léegi saa yi suñ dëkkandoore ak ñun duñ dee bokk diina wala jëmukaay mm-hmm. waaye nekkin wu rafet buñ nekk ak ñoom léegi saa yi dana ñuy kii sax ba ñuy dem di leen jaaleeg yooyu mm-hmm. fan lañ war a yem like fan la limite bi nekk ba nga xamante ni di nga sàmm sa àq ba yàlla dimbalee nga yem fi nga war a yem Mm-hmm. loolu daal laa bëggoon nga baaxee ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah eh, dëkkandoo lu yaato yaatoo yaatu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu baree baree bari eh, bu dee ju jullit ji yonent bi nee na jibril daf ma daan dénk sama dëkkandoo di ma ko dënk di ma ko dénk ba ma defee ne bu ma génnee àdduna daf may doon loolu mooy dénkandoo dëkkandoo jullit bi dëkkandoo ñett la bokkal diine bokk ak moom deret bu ñu nee bokk moom deret mooy bokk réew wala bokk communauté dëkkandoo bi nga xam ne bokku leen deret bokku leen communauté waaye yéen a bokk dëkk ci karce bi maanaam muy julliti réew mi nga dëkkal ci ci ci pegg bi beneen bi ko ñetteel mooy jullandoo dëkkandoo bi nga xam ne du jullit waaye yéen a dëkk ci karce bi bi nga xam ne du jullit waaye yéen dëkk ci quartier bi aqi dëkkandoo nag dafa yaatu lool laajoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lan mooy xaqi dëkkandoo mu ne mooy koo xam ne boo ko rombee nuyu ko bu amee mbégte nga ndokkeel ko maanaam bu amee aw xew bu baax wala mbégte nga ndokkeel ko bu amee aw naqar nga defal ko bu amee aw naqar nga defal ko bu génnee àdduna nga gunge ko ba ñu jébbal ko boroomam te ñaanal ko loolu mooy aqi dëkkandoo jullit boo ko rombee nuyu ko bu la lebee nga lebal ko su la abbee nga abal ko soo ko mënee bu amee aw yiw nga ndokkeel ko bu amee safaan ba nga defal ko bu génnee àdduna nga gunge ko te ñaanal ko kooku mooy wàllu jullit bi bi nga xam ne du jullit nag moom yooyu yëpp daje na ci lenn rek nga ko dul mën a defal mooy ñaanal gi bu amee aw yiw mën nga ko ndokkeel bu amee aw xar mën nga koo defal ndax dëkkandoo la te doomu aadama la te yonent bi ne woon na al aadami yu bunyaanullah nee na doomu aadama yëpp tabaxu yàlla lañ mhm. kon la nga ko dul maanaam rek mooy ñaanal ko yàlla tàbbal ko àjjana ndax daa nekkut daa dajewutoo nag e, la yàlla santaane da koy bàyyi ci coobare yàlla rek mhm. waaye nag la dox sa kóllë rek moom ci dëkkandoo gi ah bu amee aw naqar nga defal ko bu amee mbégte nga dem fa ne moom sañ ngaa bokk ak moom lekk ak naan sañ na laa yekkal su fekkee catholique la wala chrétien wala kitaabiyaat moom la ñuy wax kitaabiyaat bu dee ku gëmul dara nag ñooñu la ñuy tudde yéefar ñooñu ñoom kenn du lekk seen dara waaye bu dee ñii nga xamante ne bii chrétien lañ wala juif wala yahud wala catholique ñooñu mën nañoo jëflante moom yëpp mën nañoo takk ci seenu jigéen lekk ci seenu yàpp la ñuy rendeg yëpp moo tax alquran di wax ne wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum seenu ñam man ngeen koo jëfandikoo ñoom it mën nañoo jëfandikoo seenu ñam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci Madina dëkkoon na ak yahud yi daan jëflante ak ñoom di yekkalante ak commerce ak weccoonte mbubb ba tey sax am na ci seen diggante kon jëflante yëpp mën nañ koo def ak ñoom ba mu des rek ñaanal leen aljanna. jërëjëf xaaj Moustapha jërëjëf xaaj kon nu jox kàddu gi sëñ Pape Kébé Daouda maa ngi ñëw xaaj Pape Kébé aywa salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, maa ngi nuyu ñëpp ñi ma fi fekk ah, di ziar dina wax juma juma ah, mubarak alhamdulilah di boole it di nuyu suñu wasila suñu Cheikh Ahmed suñu Sidi Ahmed si. Imam hmm. Diop man de dafa am lu ma suma benn waay bu ma laaj sànq. Hmm. dama bëgg dellu ci maanaam ci sangaa yu néew bi. waaw xam comme ñu nekk bitim réew mm-hmm. maanaam da ngay xool nit xëy na dara ray ko maanaam accident wala ñu ray ko xam nga fii tubaab bi li ci ëpp wax ne waaw balaa ñu leen di jébbal koor bi dañ leen dañuy war a def autopsie mm-hmm. ba pare doog la jébbal koor bi ma maa mm-hmm. bëgg a xam te ñun julliti dañuy wax ne ah lu lu yàlla tudd la lu yàlla tudd la lan la wax ci loolu ki nga xam ne dafa génn àdduna moo xam dafa dee ci feebar bu ñu xamut wala dañ ko rey ci ball wala yeneen yu xeet yu mel noonu ñu ne dañuy def autopsie loolu lislaam daf nuy sant réew munu nekk rek atte ya nga xam ne dañ koy doxal ci seenum réew te sañunu ko ban nu nangu ko ci nangu loru dañuy nangu loru xata sax bu dee ci réewum jullit te nga xam ne li ñu bëgg a def mooy taxqiq muy dëggal ba xam kii lan moo ko rey ak lan lan lañ ko reyee ba atte mën a dal ca nga ña nga xam ne ñoo ko def loolu dara nekku ci ñu seet jëmmam euh, euh, def autopsie ndax fii ku fi faatu wala nit ki bu tawatee sax faaw mu nekk ci loxo yi docteur yi réew mi wala hôpitalu réew mi lañ cey def ci autopsie nag sañu ñu bañ te it bu fekkee day dëggal ngir ñu xam ka ko euh, rey wala ka def nangam ca moom ngir ñu mën a doxal maandu te ak justice ca kawam loola dara nekku ci wallahu alam waaw yow jërëjëf imam sëñ Fallou daf ma wa rahmatulah salaam wa rahmatulah ah imam ñu ngi kontaan bu baax a baax ci sa teewaat fii nag ndax kenn duna guleet ci taxawaayu rajo bi fii dëgg la ñu ngi lay dalalaat bu baax di am mbégte nag di la ndokkeelaat bu baax a baax ci kanam sëriñ bi rawatina sa taxawaay ci lislaam bi alhamdulilah na barki démb rek ci fundraising bobu ñu ron def jëmee ko ci jumaay Tiwaawan ji nga taxawé ko. lool sa yaatu way la ci diine ji rek luñ la ci way soxla rek nga tew ci. dëgg moo waral sa teway fi tay nak wax deug yàlla am sa teewoo fi tay rek yalla yalla gëna gën xam-xam bi. amin ya rabbal alamin imam question yi maamoon doon ko laaj rek moy baatu ramu ndax damay dégg rek ñu ne kérok bespen ci kenn rek lañu yaakaare yaakaaree mu yalla subhanahu wa taala. Mm-hmm. léegi nag moo bëggoon a leerluwaat rek baatu rammu ëllëg ñan ñoo war a rammu. Mm-hmm. Euh, góor bëggoon naa cee leerlu daal. Euh, bi itam mooy yomal xeyam. Mm-hmm. ndax dama niñ ko waxee rek kenn ku nekk bi nga judd nee nañ yomal xeyam. waaye kenn ku nekk xam guñ yomal xeyam boobu kañ la ak naka la. waa ju bëggoon cee gën a leerluwaat. ñëw na ci alxuraan lu baree bari teyit lu am la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jox li ñuy tudde ashafaatul uzma muy ràmm mi gën a mag te gën a matale mooy masif bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko def ràmm ko ay nit bu ñu dee jàngat xew-xewu ëllëg yowmal xiyaam ba ñu daje ca penc ma kenn ku ne di tiita ka jaaxle dañuy dem ci yonent yi kenn ku nekk ñu dem fa yow di fa sàkku njëmmal nga nangu ne yow mënoo dimbale kenn tey ndax defoon nga nangam wala tooñoon nga yàlla kon dem leen seeti keneen ba ñu agsi ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ne ko yow mi yàlla yónni ci jaam ñi kaafatan rammul nit ñi mu ne leen ana laha ana laha man maay ramm te yàlla man la yàlla jox li ñuy tudde ashafaatul ulma ashafaatul ulia mooy ramm al ashafaatul uzma mooy ramm mu mag bi nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent bi waaye bu yonent bi rammoo ba noppi nag nit ñu baax ñi danañu ramm muy nit ñi nga xam ne ay góor yàlla lañ almuttaquuna almuqarrabuuna ñi yàlla jegel seen boroom ñooñee danañ ramm ay nit yoo xamante ne bi yu sell lañ yu doon góorgóorlu ci seen diine lañ du nag kàccoor bu jóg rek ñu boole laak ñoom ñu ramm la wala nga ramm leen loolu moo tax ñëw na ci alxuraan lu baree bari yàlla ne wax ne laa yashfauna illa liman irtada maanaam laa laa yasmauna illa illa man azina lahu rrahmanu wa qaala sawaban lu may ku yàlla digal ne la rammul diw te kookee dañ ce sarta ay sart kii rammu na fekk mu am daraja mën a ramm ndax ak ragal yàllaam ak jaamu yàllaam ak liggéey bu rëy bu mu def fii ci àdduna kañuy rammu muy benn kañuy rammu itam na jëf loo xamante ne bii ku neex a rammu lay doon xanaa ay ndesiiti bàkkaaro ko dese wala leneen ñu tinu ko ràmmul ko mu dugg aljanna te it balaa rammoo am digal dafa jot waaw balaa rammoo am ndigal dafa al iznu boobu sart la ci rammu kenn ku nekk mën ngaa sañ a waaye doo diggu doo rammu lu may illa bi isnillahi lu may ci ndigalul yàlla subhanahu wa taala kon faaw kii rammu am darajab rammu ki ñuy rammu yitam doon kus manees rammu waxuñu nag koo xam ne moom sa àdduna sépp ci flanc grand délit nga ko nekkee ba noppi ñëw ne rammu ka tege nag ba ba ca ñetteel nag mooy ñu toog déglu yàlla nag bam ne ràmmul diw ñu doog a ràmm loolu mooy ràmm su ko defee yonent bi xamal nañu ne koor dana ràmm alxuraan dana ràmm jëf ju baax dana ràmm nit ki bu ëllëgee julli dana ñëw taxaw ci kanamu jaam bi ne yàlla tin ma ci moom ndax kii day daw ma sànq benn yoon jàkka ci boppam dana ràmm te bokk na ci li nga xam ne nit ki dana ko seereel jàkka su fekkee nit ki dañ koy yóbbu ci jàkka mu faatu ñu war koo jullee jàkka ja day dégager responsabilité ne kii wu fi ñëw kon loolu tax na nit ki war di dem ci jàkka di julli ji ca mbooloo ya waaye nag li wér te wóor daal mooy rammu am na bu wér waaye wu ndigal am du neex rek nga jóge sam sañ-sañ ne rammu donte yàlla may na la loolu it faaw yàlla xool say mbir ba xam yow am nga marta bu bu jar ngay ram bu boo war a rammoo kañuy ràmm itam na doon kuñ mën a ràmm ñu toog na xaar ndigal ba yàlla ne ramu leen loolu mooy benn bi yow mal qiyaam kañ la ak añ la ak euh, naka lay deme alamatu suxra dafa am alaamaatul kubra am mandarga yuy wone ne bis penc ngi jege si te loolu yonent bi andi na ci yu baree bari ne ba bu ngeen ko gisee ci mujjug jamono na ngeen xam ne léegi àdduna tukki yooyu bokk na ci bu nit ñi demee ba alal ak yi jigéen ak ëpplante yooyu yëpp nekk ci seen bopp yi loolu bokk na ci mandarga yi wane ne àllaaxira ngi euh, euh, bis penc ngi jege si loolu bokk na ci mandarga yi jant bu ngeen demee ba gis ñi dooni góor di nuru nurulu ay jigéen wala ñi dooni jigéen di nuru nuru ay jigéen te mu bari ci jamono jant bu ngeen demee ba gis mooy yàlla gi ëpp fuuf jaamu yàlla yi na ngeen xam ne bis penc ngi jege si beneen ba ca topp nag muy alaamatu suxra mooy bu ñuy wol bufta bi loolu nag yàlla rek moo ko xam kañ la waaye daal mandarga ya bu ñu ko gisee mooy mandarga yi nga xam ne mooy bis ba ñuy mujj ci àdduna nag jant bu ñu gisee jant bi fenk ci sow bi loola bokk na ci mandarga yi wane ne sifle ga jub na wallahu aalam ah, mm-hmm. na soxna laaj Gueye moom dafa a laajte soxna waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi di ziar maa ngi di nuyu yéen ñëpp si panel bi imam hmm. amoon ñaari question yu ma bëggoon laajte dama bëggoon xam ndax koo xam ne hmm. euh, mënu ma wax yéefar parce que gëm na yàlla est-ce que ku hmm. mel ku jox sarax mais du du jullit euh, deuxième bi mooy li nga wax Mhm. dafa am ñoo xam ne dañ naan na léeg tamit bu dee da nga def safaan. mun mhm. nañ la mun nga dugg safara ba pare après ñu ràmmu la. ba a xam ne dañ lay àtte euh, corrigé la ba pare ràmmu la wala mun nañ la ràmmu sauvé la. saa am mhm. yenn jaar-jaar yi. nit ki nga xam ne ab jullit la. daan jaamu yàlla fii di góorgóorlu waaye nag am na ay bakkaar yu ko yàlla jéggalut kooku dana dugg sawara. bu ca duggee lu toll ne la mu defoon ci bàkkaar ñu génne ko jéggal ko yóbbu ko mu defoon ci ay bàkkaar bu ko yàlla jéggalu loolu moo tax ñuy santaane njéggal fii ci àdduna loolu moo tax nit ki war a jéggalu ay bàkkaaram te jéem koo néewal balaa ñu koy topp bàkkaar yooyu bu neexee yàlla it mu jéggal ko ko waaye bu ko attee ci coobareem la mu def ci ay bàkkaar danañ ko mbugal ca sawara delloo ko àjjana ndax ab julit benn buy sax sawara amut képp ku di julli rek te mu nekk ci sa bopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na man qala la ilaha illa allah daxala al janna Ko xam lu tol new fepp nga ci sa xol bi ci ngeum yalla faaw nga dugg aljanna lolu moy buñ la dee mbugal yitam da nga dugg aljanna euh, ki nga xamne dub te dekk ak yow mba nga diko romb ci mbedd mi bu fekke gis nga ci mom melokanu tumuranke muy xif wala ñakalum sol wala ñak fu mu dekk nga yëkkati dara jox ko dara nekku ca ndax doomu aadama la jëm jëmmi doomi aadama ji ngay xool ca moom euh, yonent bi ne woon na al aadami yu bunyaanullahi mal'uunun man hadama doom aadama tabaxu yàlla la yàlla rëbb na képp ku ko màbb kon foo fekk nit koo xam ne nit la mala yi sax des leen di jox lekk ak naan ci kaw anam nga ñu nekke am na koo xam ne joxoon benn kël muy xaj mu naan ca la ko yàlla jéggale ay bàkkaaram ba mu tuubee am na koo xam ne téye woon na muus bañ koo jox lekk ak naan ci la ko yàlla yóbboo sawara ngir soxaral gim ko doon soxaral kon def lu baax ci ñëpp lees koy def waaye nag rawante na kirib jullit nag masalan tey da nga doon génne asaka wala danga ngaa sarax bu doon bul ko jox rek ki nga taseer ci mbedd mi sedd ci sa mbokki jullit yi nekk ci dëkk bi ak ñene feneen ngir ñoom itam ñu mën caa seen bopp wallahu a'lam jërëjëf jërëjëf Imam Moustapha xam jërëjëf jërëjëf Imam Moustapha xam naa ni sant sunu mbokk yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ku mel ni Haji Badj Ñang mm-hmm. euh, Haji Abdou Aziz Fall sunu bàjjeen euh, euh, yi nga xam ne nii ñu ngi ci àndaloon ngeen ci panel bi tabarkàlla mm-hmm. waxtaan wi am na solo waaye dañu bëgg a bàyyi rek incha allah mm-hmm. sunu vidéo bi nga xam ne jàllale woon léegi muy waxti ñetti fan yi nga xam ne moom lan jagleel convention bi nu jàllale ko buñ hmm. paree delluwaat si yow nga tàggoo tàggoo bu du tàggoo kon waa régie bu fekkee pare ngeen rek nu fàttali hmm. nit ñi ne alxames le 24 ak ajjuma euh, euh, di friday euh, twenty fifth ak saturday tool tombe ak vingt le 26 dina bokk ci fan yi nga xam ne mooy fan yi convention bi kon bu fekkee ne waa régie pare na rek nu indi nu élément bi mbokk salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib mi ngi noonu it fa mbooloo ma duy dañ moom sëriñ bi daan ànd ak yéen ci par état dem fa aljuma doon ñu xadara waxtaane tarixa bi dimanche samedi ñu waxtaani yonent bi alayhi salaatu wasalaam dimanche ja nu waxtaane daayira bi waxtaanee Seex Seydi El sëriñ bi bu jógee état bi dem ci état bee waaye xam ngeen ni jamono tëddee jamono bii ñu toll xam ngeen feebar bi am waaye looloo tax sëriñ bi bañ neenal itfa waaye du deñ di bégal njabootam mu sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib looloo waral asatise yi nekk ci itfa ak borom yi xam-xam yi ne ci réew mi nekk Amérique sëriñ bi dajale leen jox leen ñëpp kontaan. incha allahu taala njàngum alquran bégal leen sëriñ Moustapha Sy mu sëriñ Maodo dana ñëw jàngal leen alquranul karim ci xeeta jiit yoo xam ne kenn nu mu mel bu ca noppee ñu jël sëriñ Ahmed Sarr mu sëriñ Moulay moom itam incha taala Ahmed Sarr dana ñëw ci njànginu alquran bu jéggi dayoo sëriñ bi nii taala daañu jël ay boroomi xam-xam daañu ñëw waxtaan ak yéen sëriñ Moulay Sy Mouhamadul Habib dana ñëw bégal leen moom itam kenn kenn wuute ci yam ga moom sëriñ mu laay ci teey ga ci xam-xam bu sell ba bu ja noppee mbokk yi conseil général El Hadji Amadou Ndanda Ndaw ci suñu xarit boobu le docteur Cheikh Alhaji Mouhamadul Mansour Diop ca Tiwaawoon moom itam docteur Alhaji Ousmane Dia ca Gambia di borom xam-xam bu mag a mag a mag mais mbokk yi dañuy delluwaat New York fekk fa imam Abdoulaye Diop moom itam incha allahu taala dana ñëw waxtaan ak yéen imam Cheikh Tidiane Diallo moom itam dana ñëw bégal leen mbokk yi Seyda Fat Bintou Diop bu télévision Futur Média di soppi ñëpp dana ñëw moom itam bégal leen Seyda Fatimata Leet moom itam di borom xam mbokk yi soppi xaritu ñëpp di njabootu Seydil Hadji Malick Serigne Pam Makhtar Kébé moom itam. jërëjëf Hadj Moustapha. Mhm. Euh, kon xam naa rek nu bàyyi sunu xarit Cheikh Matidiane Seck mu joxe li nga xam ne mooy programme bi bu ko defee nu direction Cheikh Matidiane. Ah, waaw jërëjëf suñu Fall mhm. euh, donc euh, comme ni nga ko waxee rek ñu gannaaw bu ñu gërëmee imam ci waxtaan bu leer bu bu tey bi nga xam ne indi na ko mbooloo mi euh, ñu dellu si ci programme bi rek di ko fàttali di ko fàttali mbooloo mi tamit programme bi comme niñ koy waxoon sànq rek euh, dafa nekk euh, programme jàngale alxuraan bi nga xam ne sëñ Sidi Ahmed moo koy moo koy def ci ci daara ji mu doon ñetti fan yi nga xam ne moom la ñuy jàngale alxuraan hmm. fan bi si jiitu nekk sunday muy dimanche diggante une heure si bëccëg ba trois heures si bëccëg euh, jàngale bi wolof liñ koy defee euh, di ñi nga xam ne ñoo gën a bare ci daara jooju nag mooy ñi nga xam ni euh, soreeguñ si alxuraan wala boog ñu bëgg nafaraat ci tajwid bi nga xam ni moom la sëñ bi indi bu ko defee jàng bi gën a mën a leer beneen bi nga xam ne bis bi nga xam moo ci topp si jàngale bi nekk Tuesday talaata si guddi lay doon moom huit heures si guddi ba dix heures si guddi moom tamit ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom xaw nañu yàgg si daara ji te avancé nañ tuuti macha allah ñoo ciy gën a nekk euh, bi ci topp tamit mooy saturday bi bi nga xam ne moom euh, sunu doom yi ñoo ciy nekk ak ñi nga xam ne ñoo ngi ci réew mi fii te nga xam ne anglais bi moo gën a jàppandal si ñoom sëñ bi di leen ko jàng foofu ci anglais euh, ñetti ñetti bis yooyu yëpp nag nga xam ne ku si nekk nag mën nga free to participer si foo ci bëgg participer rek mën nga dugg si ñetti classe yëpp sax incha allahu rabbi Euh, classe yooyu nag ku ci bëgg dugg nag aussi mën nga jokkoo ak soxna Ndeye Amy Sarr téléphone am nekk 401 401 261 27 01 wala soxna maam Adama Gueye téléphone am nekk 401 688 56 17 wala sëñ Cheikh Cheikh Diallo téléphone am nekk 267 688 89 80 wala Serigne Djibril Thiaw 614 340 82 wala ñi nga xam ne ñoo ngi Europe mu bokk mën nañu jokko ak soxna euh, Roqaya Cissé euh, téléphone am nekk 337 66 57 47 41 loolu mooy jàngale yi nga xam ne dana am si semaine bi si ñetti fan yu nekk si biir semaine bi euh, te sëriñ bi nga xam ne mooy sëñ Sidi Ahmed moo koy moo koy moo koy def bu jógee si jàngale yooyu alxuraan bi mu am ñaari bés yi nga xam dana am si semaine bi nga xam ne ñaari bés yi euh, alxames bi moom la ñuy wax ëttu itfa euh, ëttu itfa bi nag moom la ñuy def euh, ay waxtaan yi nga société bi lay doon yi nga xam ne moom moo ñuy xiiteel fii ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci ci Amérique diñ si waxtaan nag mbirum santé santé comme ni ñu ko xamee rek santé nag dafa yaatu jamono bu nekk nag ñu indi benn docteur bi nga xam spécialité nekk na ci lenn ci benn fànn mu ñëw ak ñun si loolu ñu si ànd ak ay tontu ak ay ak ay laaj ak tontu euh, gannaaw bi nga xam ne def na exposé am wala ñu si waxtaan tamit si mbiru euh, économie euh, jëm si affaire taxe wala ci mbirum éducation wala ci mbirum real estate yooyu yëpp daal ak ñi xam ni ñi am nañu ay soxla ci yooyu bu ko defee bu ñu ñëwee waxtaan si ak ñi nga xam ne ñoo yore ëttu ITFA daara jeeg kii bi. ci yooyu ñoom daañu mën a jël sujet yooyu. indi ñi nga xam ñom lañuy mëna indi pour ñu waxtaan ci yooyu euh, donc bu joggé ci si alxames bi aussi ñu ñëw ci ajuma bi ajuma bi comme tay jii nii rek euh, comme ni ñu indé imam imam mustafa mu ñëw tay ji indi ñu waxtaan bu leer non rek lañ koy defee euh, ñi nga xam ñoo ngi fi ci Amérique bi wala ñu nekk Sénégal wala ñu nekk Europe tamit ñu indi leen ñu ñëw ñu ci diiné bi waxtaan ñu ci tarixa bi bu ko défé ñun ñëpp ñu and jël ci ay njëriñ inshallah rabbi rabi donc hmm. euh, sëñ Fall yi nag xam nga loolu mooy programme bi loolu moom du ma ci dellu si waat yàlla na jàllaat na mooy convention bi nga xam ne mu ngi ñëw incha allahu rabbi hmm. donc hmm. kon liñ ciy dolli rek mooy que ni ñëpp fexe ba ba ba teew si euh, am ci ittee daal di ñu jëp ñu bokk si euh, bëgg ci jàng si am wut si ngërëmal yàlla subhanahu wa taala donc Alaaji Fàlli kàddu gàngoog ñu lay gërëm di la sant di gërëm invité bi nga xam ne ñëw na tey ji si sunu daara ji quoi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf Seyda Cheikh jërëjëf Seyda Cheikh ñi ngi lay sant bu baax ci faram-fàcce bi di wax rek ne ñun ñoo bokk gisandoo programme bi nga xam ne ni moo jëm ci bisi convention bi muy programme boo xam ne eh, tabarkalla ñi nu wax ni ñoo koy taxawee eh, ñu jéggi dayoo na ci wàllu xam-xam ak wàllu alxuraan kon mbokk xarit eh, nu bàyyi ko xel bu baax a baax te taaxalu yaa bu neexee yàlla incha allah fàttaliwaat rek alxames le vingt le vingt quatre ajjuma le vingt cinq ak samedi le vingt six waaye balaa nu continuer nu jox sunu xarit sunu bokk sunu soppe Haji Moustapha di ko gërëm di dellu ko gërëm ci ité bi muy def parce que ma fu fàttali rek bi ma koy woo boobu huit heures vingt deux jot na donc matul quarante mi nu woo ko mu bàyyi lépp ñëw taxaw ko ni mu ko taxawee mu rafet lool kon dañ koy ñaanal yàlla di ko sant tur sëriñ bi di di ko war di wari suñu ci moom Haji Moustapha kon ma mm. bàyyi rek gàttaagoo mbokk julli yi ba beneen yoon mm. incha allah mm. euh, jërëjëf sëñ Fall yi am nañ mbégte bu baax a baax ci dalal gi ngeen ñu dalal ci ITFA TV euh, beneen yoon di ba tey di nuyu rek di Ahmed si di ko ñaanal di ko jaajëfal Eh, ci liggéeyu maamam bi nga xam ne wax dëgg yàlla mooy taxaw lislaam bi taxawu njaboot gi fuñ mën di nekk yàlla na ko ci yàlla dooleel di ñaanal itam ak eh, nuyu mboolem waa xadra bi eh, fu ñu mën di nekk ci États-Unis yi nekk feneen ak fédération beeg yëpp rek di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ba tey nag di nuyu sunu jigéen soxna Umu Si Jamil Mm-hmm. Eh, doonoon sunu xarit lool ndeysaan nekk fële ci Sénégal ñu ngi koy nuyu bu mm-hmm. baax a baax di ko siyaar ak mboolem ñoom fa eh, nekkal imaam Jibril Dieye mm-hmm. kon daal bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di ñaanal sëñ Fally di la sant bu baax waaw di ñaanal nañ bu baax jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yal na yàlla mootali yéen yëpp jërëjëf jërëjëf mbokk xarit am di jàmm kon nag ñu ngi ne tàggu bu benn yoon di wa rahmatullahi taala wa barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إمام سيد فضيلة الإمام مصطفى جب جزاكم الله عنا خير الجزاء حي الله معارفكم وأيدكم بنصره وأطال بقاءكم على طاعته اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه واستغفرك لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك فيه أستغفرك لما أردت به وجهك فخالطني به في فيه ما ليس لك وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معاسيك واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها ولكل ذنب أتيت به أحد عملا به اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين واغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بالروح وريحان ورب غير غدبان نعم. اللهم اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك نعم. اللهم انا نسالك توفيقا في طريقتنا وراحه في انفسنا وتيسيرا في امورنا نعم. رب نعوذ بك من شتات الامور ومس الضر وضيق الصدر اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib mi ngi noonu it fa ngoog mbooloo ngoog duy dañ moom sëriñ bi daan ànd ak yéen ci at mi état par état dem fa aljuma lay doon ñu xadara waxtaane tarixa bi dimanche samedi ñu waxtaani yonent bi alayhi salaatu wasalaam dimanche ja nu waxtaane daayira bi waxtaanee seex Seydi El Hadji sëriñ bi bu jógee état bi dem ci état bee waaye xam ngeen ni jamono tëddee jamono bii ñu toll xam ngeen feebar bi am waaye looloo tax sëriñ bi bañ neenal itfa waaye du deñ di bégal njabootam mu sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib looloo waral asatise yi nekk ci itfa ak borom yi xam-xam yi ne ci réew mi nekk Amérique sëriñ bi dajale leen jox leen ñu kontaan. incha allahu taala njàngum alquran bégal leen sëriñ Moustapha Sy mu sëriñ Maodo dana ñëw jàngal leen alquranul karim ci xeeta jiit yoo xam ne kenn xamul nu mu mel bu ca noppee ñu jël sëriñ Ahmed Sarr mu sëriñ Moulay moom itam incha allahu taala Ahmed Sarr dana ñëw ci njànginu alquran bu jéggi dayoo sëriñ bi nii incha allahu taala daañu jël ay boroomi xam-xam daañu ñëw waxtaan ak yéen sëriñ Moulay Sy Mouhamadul Habib ñëw bégal leen moom itam loolu bu kenn kenn wuute ci yar ga moom sëriñ mu laay ci teey ga ci xam-xam bu sell ba bu ja noppee mbokk yi conseil général El Hadji Amadou Ndanda Ndaw yor suñu xarit boobu le docteur Cheikh Alhaji Mouhamadul Mansour Diop ca Tiwaawoon moom itam docteur Alhaji Ousmane Dia ca Gambia di borom xam-xam bu mag a mag a mag mais mbokk yi dañuy delluwaat New York fekk fa imam Abdoulaye Diop moom itam incha allahu taala dana ñëw waxtaan ak yéen imam Cheikh Tidiane Diallo moom itam dana ñëw bégal leen mbokk yi Seyda Fat Bintou Diop bu télévision Futur Média di soppi ñëpp dana ñëw moom itam bégal leen Seyda borom xam mbokk yi soppee xaritu ñëpp di njabootu Seydil Hadji Malick Serigne Pam Makhtar Kébé moom itam dana ñëw ci xam-xam bu sell baak waxtaan am solo duñ ca Serigne Khalifa Mbaye wal Hadji Mbaye Donde Mbaye borom xam-xam bu mag boobule dana ñëw waxtaan ak yéen mais mbokk xam ngeen bëgg sopp ko di mboolem ku baax Pape Hann moom itam incha allahu taala dana ñëw bégal leen ñëw waxtaan ak yéen ci ndigalu Serigne bi waaye ren dañoo invité oustaz Modou Fall moom itam di borom xam-xam dana ñëw bégal leen ànd ceeg Pape Hann mbokk duñ ca yam jànkat yaa ngoog woykat yaa ngoog ñii ànd ak ITFA ci Amérique Mbaye Donde mbay ma nga New York maga Mbaye ma nga Atlanta Abdoul Aziz Ba ma nga ca New Barakan ma nga ca New York Alhaji Mouhamed Kabir Seen ma nga ca moom Mouhamadul Kabir Seen moom itam dana leen bégal Ibrahima Mbuub ma nga Rali incha allahu taala dana ñëw bégal leen Abdoul Aziz Mbaye ma nga ca dina leen bégal mbokk xaritu ñëpp soppay ñëpp ki nga xam ne ñëpp ko kan alxaaji Samb buy dem xamal fi muy jëm day tagg bi buy dem xamal ni ma ngay sagali kër alaaji Malick ak kan alxaaji Ngañ Mbaay mu alaaji Mansour Mbaay mu Moussa Ale Mbaay jël seen dund jox lépp sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib mi ngi noonu it fa ngoog ñaanal leen jigéen ñi itam daañu ñëw wax cofeel gi nu am ci sëriñ bi waaye wax la njëkk muy xam it fa fu ñu ne woon xale yi it itfa nañ ko daan def ci convention ba ñoom itam daañu ñëw xamal alquran di ñu leen jàngal tari ndax sëriñ bi xam leen jàngale ne na ko maamam Seydi Hadji Mal daan defee sëriñ bi Ahmed Mouhamadul Habib Magaca kon jigéenu itfa ñoom itam dana ñëw am na ci ñoo xam ne ci leen la ne woon tey fan la ñu ne ak sëriñ bi xam nañu yàlla bëgg Seydina Mouhamed jeex tàkk ci la tariixa bi waaye jeex tàkk ci Seydi Hadji Malick njabootam Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib le 24 lay doon le 25 le 26 décembre bi ñu dëgmal loolu nag bu ko kenn kenn kenn wuute Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib. jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo Itfa rajo Itfa ànd ak yéen ci programme yi yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la. mo xam ci walu actualité la ak lepp luy soxal dundu doomu adama radio itfa ànd ak yéen luy askanu gambia wala mu soxal askanu senegal te nek ci bir amerique ak liko wër di ngeen ànd ak itfa ci programme yu am solo Radio itfa di radio askan wi leram ya jollina fo xol fo fa bawan radio itfa dal, dama ni jappal ma bi radio bul ko ti ba mukk radio itfa راديو أسكنوي رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب قلبي صلي على محمد